que les gens ils vont nu ñu koy waxee sax dañuy jël lool rek gobe ko ne le gouvernement wax na c'est fini. Mm. non pas du tout wax nañ. il est bon que ñu wax mais bu ñu waxee ba pare ku ci nekk ci ñun da toog nga def jàngat ci li nga xam ne moom la wax surtout nag surtout ñun ñi nga xam ne <laughs> malheureusement à notre corps défendant ñun waa Walfadjri bokk nañ ci ñi nga xam ne gouvernement bi tudd nañ leen. tey kon lan nga dégg tey ci li ñu wax. alors euh, gouvernement li wax bari na. Euh, wax na ci nervi yi fi amoon xam naa dina ñëwaat ci biir waxtaan wi wax na ci tension bi euh, justice ak yu demee noonu mais dafa am loo xam ne euh, vraiment je tenais à ce que ma éclairer ko te xam naa ne yàlla ak ci seen ndimbali yéen moo tax bi ma accès fii juste ci laa dégg le ministre Abdou Karim Fofana di ko wax parce que je dois dire que moi j'écoutais la conférence de presse mm. bi ma ñëwee fii laa ci yam dégg ñu koy wax Euh, aram bi ñu tëjee Walfadjri ak tey hmm. tey la mat fukki fan ak juróom man mii nga xam ne maay directeur wu télévision ak rajo Walfadjri tey lay doog a dugg sama nopp tey que ni gouvernement bu Sénégal lii lay reproché Walfadjri hmm. ah xam nga dans un premier temps bi ñu coupé signal Walfadjri waxuñu ñu dara dara dara dara dara rien du tout absolument rien jusqu'à ce que le vendredi passé suba lay am huit jours ñu def suñ conférence de presse bi ñu koy def ci la ñu yónnee une notification boo xam ne ñu ngi ko daté le premier li ñu doon bokk na ci wane ay images yoo xam ne ay xale yu xeex ay alkaati la euh, des propos mensongers et subversifs xam loolu mën na cee dugal lu ne. mais bi ma toogee fii tey ci seen studio bi laa dégg le ministre Abdou Karim Fofana mu wax ne suñu correspondant bi nekk. Ziguinchor Amady Khalil passage. moom moo wax ne l'armée bi dañoo génn ci mbedd Ziguinchor et c'est pour tirer sur les populations xam nga bu ñu nekkee ci une édition spéciale comme fi ñu toog nii di jël suñu ay correspondant ak suñu reporter ñu ne ci terre sur le terrain il est possible ñu wax des propos yoo xam ne yow ci sa bopp man nga jàpp ne waxuwul hmm. man je suis quelqu'un boo xam ne je veux être très et dama bëgg en toute chose que je prenne responsabilité ba mu jeex hmm. gis nga su ma leeroon man. Hmm. ne ma dégg ci sama nopp ne Amadou Khalil jéeme moo wax lii ministre bi wax j'aurais pris responsabilité responsabilités et le rédacteur en chef bi nga xam ne mooy Pierre-Edouard Faye. dina jël ay responsabilités parce que dans premier temps lan la gouvernement bi doon wax que ni dañu wane ay images yu armée ñu génn ne dañoo génn nekk dans les rues de Ziguinchor. Hmm. biñ ko waxee laa ne c'est pas vrai waxuñu dëgg notre correspondant à Ziguinchor bi muy wax ci téléphone la doon wax on n'avait même pas des images donc ku amul image mënoo wane armée mu nekk Ziguinchor. qu'est-ce qui a été dit par le correspondant man bi émission bu am. Euh, fekk na ma sama kër mu tëdd parce que j'étais malade fan yooyu mais Pape ci liggéey bi ñuy def. Hmm. combien de fois il est arrivé. que journaliste joxe une information et que après on se rende compte que ne information boobu amul les journalistes yi gën a mag laa la wax nag waxuma euh, kuy débuté yi gën a mag mais su fekkee ne dafa am un journaliste bu joxe une information boo xam ne bu fekkee je di bien si li Abdou Karim Fofana wax dëgg la su fekkee dafa joxe une information ne l'armée dañoo génn à Ziguinchor et que dañu tirer sur les populations la question simple que je me pose mooy est-ce que la meilleure à ça c'était de violer la loi parce que le gouvernement dafa violer la loi violer la loi mooy lan mooy le ministre de la communication muy Moussa Bocar Thiam qu'il prenne la responsabilité sur lui de dire je ferme euh, je suspends le signal de Walfadjri pour un mois na ma wax rek ban loi moo ko may moom ministre boobu su fekkee ne dafa dégg wax joo xam ne c'est une fausse information sur Walfadjri quelle que soit la nature de l'information mu ne day suspendre signal bi pour un mois oui. le nouveau code de la presse bi nga xam ne moom la ñuy évoquer souvent pour justifier li nga xam ne moom la ñu def hmm. le nouveau code de la presse li mu wax dafa leer le CNRA mën na suspendre un signal te sax CNRA waxuñu ko parce que CNRA heure waroon na fekk mu dee mais mi ngi dund ba léegi ar voilà ce arca moo ko waroon def defu ko mais qu'est-ce que la loi dit la loi dit l'autorité administrative peut le faire mais Pape Ousmane ñun duñu ay juriste mais jàng nañ tubaab gis nga bi ñu waxee ne autorité administrative mën na ko def sur en des cas exceptionnels lañ ci préciser ba pare tijji ay parenthèses def ci gouverneur préfet sous-préfet est-ce que le ministre tudd tudd nañ ko fenn le ministre de la communication am na droit def loolu moom moom mooy euh, euh, maanaam responsabilité yi ngay yi ngay situé mais d'abord da nga wax pas boo euh, parti boo xam ne dama jàpp ni mhm. baax nañ taxaw ci li nga ni Euh, édition spéciale. Mhm. sunu correspondant ci Ziguinchor jamono jooju yaa ngi feebar. oui est-ce que li Abdou Karim na leeral tey wax ko ci da ngay dëggal ni. Mhm. lu am la wala après vérification ci correspondant bi ñu wax ni jour boobu moo nekkoon au téléphone que amu woon image. Mhm. que wax na ba mu wax na lépp ba mu des. li nga xam te ne wax na ko gis mënuma mënuma ko dëggal. Ah. li ministre bi wax. parce que il va falloir que ñu confronter deux choses ministre wax na ko ak la version de notre correspondant mais également les enregistrements que nous nous avons parce que li neex léegi mooy li mooy les émissions yi nga xam ne moom mooy am su ma neexee tey su ma àggee sama bureau man naa ko dégluwaat su ma ko dégluwaatee su ma déggee ne effectivement li ministre bi wax ça a été dit sur nos antennes mais nous on prend nos responsabilités s'il y a des sanctions à prendre contre notre correspondant benn problème man je n'ai pas de problème quand Pierre-Edouard Faye qui est le rédacteur jour boobu ci l'antenne quand la a entendu le correspondant diir que ni y euh, tel nombre de morts à Ziguinchor le chiffre était exact te ba léegi kenn dindiwu ko mais xam nga qu'est-ce que le Pierre lui hmm. il faut aller à l'hôpital et vérifier ça avec des sources médicales hmm. na ko waa hôpital wax xam nga ñun c'est comme ça que nous travaillons ce métier là kenn duñu ko jàngal mais boo nekkee dans une édition spéciale une journée comme ça tu as des correspondants un peu partout au Sénégal tu des gens qui ont qui sont un peu partout à Dakar ils parlent ils donnent des infos man nga ñun souvent quand on des éditions spéciales à la télé les gens de Walf duñu ma bàyyi ma fenn on place des gens ci ginnaaw pour ñuy contrôler yenn image yi danaa yenn image yi dès que nga feeñ da ngay dañ naan tout de suite daggal mu dagg yenn propos yi on arrête tout de suite et ce que su fekkoon ne ñun maanaam am na Euh, euh, quand les événements je ne sais pas c'était en quelle période mooy bi ñu euh, euh, faatee waa ji ci Médina mais jour boobu j'ai moi-même placé Mouhamadou Biteye hmm. ak Seydina Omar Ba à la régie parce que j'étais à l'antenne pour que assurer pour foofu ñu toog ñuy def cette censure là en interne des parce que caméra bu nekk en direct quand même hmm. mën na wane lu ne. Ah. mais yow bi nga xam ne yaa nekk ci ginnaaw di xool tu es derrière le technicien bi nekk à la régie. Hmm. soo gisee image boo xam ne man na heurter des gens tu arrêtes tout de suite et man les gens dañu dem ba awal fajiri d'ailleurs soo leen laajee hmm. dañ naan la man dama commencé di leen censurer très souvent pourquoi parce que man sama sama philosophie mooy on dit souvent que ni le bon journaliste c'est le journaliste qui est en vie. Oui. man je dis souvent que ni le bon groupe de presse c'est le groupe de presse qui existe Walfadjri bu defee loo xam ne dañ koy tëj ñu tëj ko ban njëriñ lañ amatali sénégalais yi on fait notre travail vraiment avec rigueur bi mu war a am yëpp. Hmm. sans ragal sans quoi que ce soit sans jàmbaarisme sans rien mais nag ce travail là dañ koo jàng di ko def. est-ce que Walf mais mais naturellement xam nga suñ nee Walf dérange man je me dis souvent que ni ce n'est même pas dire Walf mais les médias. yore un pouvoir di ko exercer li ko gënal mooy continuer di exercer euh, ce pouvoir là bu élection ñëwee mu gagné te loolu li koy may mooy perception bi sénégalais yi di am ci liggéey bi ñuy def mais su fekkee ne tu as des médias qui font bien leur boulot. Hmm. parce que pour man un média qui fait bien son boulot c'est un média qui est capable de dire Sénégal am na ñu TER c'est bien am na ñu BRT c'est bien comme ni ko ministre bi waxee. mais mais. am nañ des cars rapides qui les gens tous les jours. Hmm. am nañ des cars Ndiaga am nañ des bus de soixante dix places qui font des accidents avec cinquante morts le gouvernement n'a pas ce problème là suñ ne ma on a euh, nu ñu koy waxee sax des échangeurs et des autoponts un peu partout la circulation s'améliore je dis très bien mais en même temps fii ñu toog nii di wax aram y a des zones du Sénégal yoo xam ne bu bëggee ndox muñ naan duñ ko am duñ ko am ces réalités là gis nga ces réalités là ku ko bañ ci Sénégal non seulement di nga tëj Walfadjri mais di nga tëj yeneen média parce que Sénégal du réew moo xam ne da ngay yeewu seetaan journal vingt heures wala treize heures ñu wax la fa lépp loo xam ne moo dox ci réew mi lu doxul ñu bàyyi ko en tout cas ñun c'est pas notre façon de voir les choses oui, ñun mais... notre façon de voir les choses c'est de dire au gouvernement du Sénégal que y a des qui sont fatigués Pape dama lay raconter benn anecdote ouais. ma je suis venu à Walfadjri di commencer di liggéey ci rajo bi un bon jour des des femmes m'appellent ne ma Walfadjri est à est à au front de terre ñu ne ma y poste de santé qui une un dispensaire qui xaar yàlla. diggante bi fajir su ma ko dee dox du mat cinq minutes de marche ñu ne ma dispensaire boobu ay weer a ngi nii ndox amu fa bépp jigéen bu fay ñëw di accoucher da ngay yanu ndox indaale. moi j'ai en ici à Dakar j'ai envoyé un reporter là-bas il a reportage. ñu teg ko ci rajo bi deux jours après les mêmes dames m'appellent ne ma Khalifa Sall boobu moo nekk maire de Dakar envoyé na des gens ba ñu remettre le compteur fay nañ facture yi ndox maa ngi déparaat mais ce travail là man su ma ko deful je sers à quoi aux Sénégalais dire au Dakar waa qu'il y a un BRT qu'il y mais il le voit tous les moom mooy ligne ligne ligne ligne bi ñu leen di wax ligne éditoriale bi nga xam ne souvent dañu gis même les politiques mhm. su ñuy def seen procès fa la ñuy dugg. way mhm. Walf depuis longtemps defatuñ journalisme même journaliste yi fa nekk dañu gis benn côté rek foofu la ñuy tiire. Mhm. dégg nga sànq sax même ba ci conférence de presse bi. am mhm. kenn ci ministre di ko wax. ba jàpp sax am na journaliste yoo xam ni daanaka nu mu ko tuddee ay. influenceur <laughs> am na baat bi mu jotee subversif. di wax ci ñi nga xam te teg nañ leen loxo. finalement yooyu yëpp da koy boole ci li wax sànq ni. du loolu te te du le pouvoir politique rek Walf déranger na pouvoir yu bëree bari bari parce que pouvoir moo mel noonu que le pouvoir religieux économique tous ce que tu veux mais dafa am loo xam ne Pa Ousmane il faut que le gouvernement bi suñ ko mënul ñun journalistes yi ñoom arab ak ñoo ñu dimbali leen ci pour ñu comprendre une chose les médias dañuy évoluer hmm. man je souvent que ñi ñu jiitu Walfadjri am na nu ñu doon liggéeyee di ko defee hmm. Walfadjri liggéeyatul noonu defeetul noonu je veux dafa am une ligne éditoriale à respecter ñu man defuma ko dama ko fekk et je veillerai à ce qu'on respecte cette ligne là mais léegi boo xoolee les médias ni ñuy doxee hmm. su ëllëgee su njëkk bu njëkk ñi daan intervenir dans les médias c'est le journaliste qui fait son journal de vingt heures ou de treize heures avec des reporters sur le terrain qui font des reportages mu jeex ensuite on a des débats politiques on invite ba tel leader politique mu ñëw comme ni Sidy Lamine doon wax wax ba géex dem yoonam wala ñu invité ñaari adversaire politique ñu ñëw wax liñ bëgg a wax mais Sénégal ñun dañuy xool liy xew dans les médias du monde. Hmm. tey quand tu regardes les médias du monde tu vois partout que ne sur les plateaux de télé il y chroniqueur ci wàllu santé chroniqueur ci wàllu économie chroniqueur ci wàllu politique chroniqueur ci feneen soo demee sur les chaînes télévision en France bi ñu bëgg a xam da ngay bi ñu gën a xam da ngay gis de médecins chroniqueurs des professeurs en sciences politiques chroniqueurs leneen ak leneen te Sénégal foofu lay évoluer di jëm. soof ko Moustapha nag chroniqueurs yi ñu am. <laughs> non may ma ma ñëw may ma ñëw Sénégal foofu lay. Ah, évoluer Sénégal foofu man rek ñoo nekk léegi non Sénégal foofu lay évoluer di jëm. ñu bañ ko mu naqari ñu mu neex ñu mu naqari ñu dinañ ci dem. Hmm. mais en attendant d'atte d'atteindre ça tu verras des journalistes yoo xam ne am nañu une certaine expérience parce que le journaliste quand même mooy euh, li Colin Powell bind quoi mu ne faut pas avoir peur de défier un expert dans son propre domaine le journaliste mooy ki nga xam ne day fréquenter. ay écon ñuy def économie di fréquenter ay juristes di fréquenter leneen su amul intelligence su mën a comprendre ñii li ñuy wax mais du avancer ci dara. moo tax ngay gis Aram Touré mën a nekk chroniqueur ci benn émission Moustapha Diop mën ko nekk kenn mën kenn mën ko nekk. Mm. ñuy wax ci domaine yi nga xam ne moom la ñu maîtriser. c'est important et là et là man dama naan euh, il faut ñu accepter cette évolution là. Mm. qui fait que tey tu trouves de chroniqueurs ki parlent de tout et de rien en même mm. ñoo xam ne euh, je sais pas moi on, bu baax ñëw di wax lu neex man mais man je te jure du ma scandaliser wu ci loolu dama naan war na mën nekk dama non je dis pas war na mën nekk mm. dama naan dañu nekk ci yoon et que cette rigueur là que nous devons nous imposer dana dem ba euh, euh, nu ñu koy waxee sax une sélection naturelle va se faire xam nga nit ñi ñooy bàyyi mais nit ñi nit ñi dañu am fulla sénégalais yi dañu am fulla gis nga buñ toogee di seetaan mais del seetlu del seetlu les sociaux par exemple da ngay gis les sénégalais kenn wax ba pare ñu ne kii amul benn xam-xam li muy wax xamu ci dara. Mhm. mais à force de fair ça da ngay dem ba naturel une sélection naturelle va se faire parce que àgg gu ñu fi tubaab bi àgg foofu quand il y a eu euh, Covid bi en France. ma dama doon seetaan des télévisions beaucoup ah ñuy ñuy def ci Covid mais je voyais de des médecins yu bàyyi seen cabinet nekk ñëw nekk ay chroniqueurs sur les plateaux télé ma togg plateau de télé ma togg mu jàgg ma ne ñun daal yàlla nañu agsi même nos propres médecins là koo ci la bëgg chaque euh, semaine tu viens à mon émission pendant ne la non non man je suis médecin je parle pas. nga ne la non le barreau. nangam ak nangam mais il faut qu'on accepte à la retraite la lu ne. oui dama lay raconter benn anecdote maa ngi koy nuyu baax yàlla na ko yàlla defal jàmm Cheikh Bara Ndiaye. quand il a commencé di intervenir suñu émission yi. Hmm. man Walf ba léegi dañ ma koy fàttali man je faisais partie des gens qui disaient que on ne peut pas permettre ça. parce que dama jàpp ne du ñu bàyyi koo xam ne jàngul métier bi ñuy def mu ñëw chaque semaine on li doon du temps mu wax lu ko neex dem. lu tax ngeen nangul ko déglu ma ñëw rek man ma toog. oui c'est c'est position. mais man maay le directeur de la télé. je ne suis pas du genre buy falan comme on mm. bëgguma dara rek na dakk mm. je peux avoir tort dans ma perception des choses may toog chaque jeudi. Mm. je regarde Cheikh Bara Ndiaye chaque jeudi je le avant tout le monde di seetaan di déglu lu muy wax mag dem ba gis ne kii li muy wax nii du lu muy jël di ko lépp du lu muy jël di ko nu ñu koy waxee sax di créer ci boppam rek di wax lu muy wax day am ay euh, day am ay cohérent day am ay sart yu koy teg après je me suis une question ma ne ñun est-ce que amuñu problème man ak Pape Aram Touré ak Pape Ousmane est-ce que ñun on ne pense pas ni parce que ñoo jàng tubaab ñun rek ñoo war a wax ci réew mi et loolu erreur la bu ñuy dal on pense tous ñun que ne ñun ñoo jàng tubaab ñun ñoo jaar CESTI ñun ñoo jaar ISEC ñun ñoo jaar euh, euh, ISIC ñun ñoo jaar feneen. être li ñun rek ñoo war a wax. peut-être li dérangé woon ñu mel ni Amadou Diouf mooy. titre bi ñu ko doon collé. oui analyste politique. mais mais c'est ça le problème c'est-à-dire que ah, les les ah, les titres les souvent c'est de l'extérieur que ça vient. Ah. man damay toog parfois nit ne ma euh, chroniqueur wala analyste politique wala dara moi j'ai jamais revendiqué ça. jamais man je dis souvent que ni la seule chose que je revendique c'est je suis journaliste. Ouais. mais de l'extérieur les gens te donnent des titres. c' est Cheikh Bara Ndiaye tey boo ko tegoon laaj ko ne ko yow chroniqueur analyse politique mu ne du ma ci benn. du ci benn il te le di alors dinaa danaa taxaw fenn parce que Pape Ousmane. Euh, mhm. juutal na juutal na sama sama <laughs> conducteur <laughs> mais dama bëgg ñu ñëwaat foofu parce que après sinon suñu avancé. du ci euh, dellusiwaat. Mhm. muy. Euh, ni ngeen defee ba ba contourner. Mhm. li nga xamante ne tey mooy difficulté yi ngeen am. gis nañ la yow. Mhm. nga ànd ak euh, président euh, Cheikh mhm. ngeen dem seeti euh, sëñ Mountakha. jëlee fa waxtaan ba ñu génnee ku nekk ngi naan sëñ bi wax wax na lii wax nañu lii jëlee nañ fa lii koppar gi daal xam naa ne dëggal nañ ko. mais yéen ñi fa dem. lan la sëñ taxa jël comme. décision pour ne dina ko def. Mhm. ngir taxawu Walfadjri ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi mu nekk. gis nga euh, Aram ñun dañu am bu sol hmm. muy Sidi Lamine Niass. nekkatu fii mais ba Ousmane Sidi Lamine ñun ñu doon liggéey ak moom xam nga nit ñi souvent il parle de Sidi comme l'homme bi ñu doon gis dans les médias. mu doon wax ñuy enregistré yenn saa yi ñu teg waxam ñu ne Sidi Lamine waxoon na lii. Hmm. mais ñun on avait la man bokk ak ñeneen ci Walf ak ñu fa nekkatul sax on avait la chance dañ daan toog si la mu jékki jël téléphone am ne Moustapha foo ne nga ne ko maa ngi sama bureau wala te parfois nga ne ko maa ngi sama plateau mu ne doo ñëw ñu waxtaan pour yow dalay wax ci wal fajiri wala nga ñëw toog mu defal la tout un cours d'histoire ci Sénégal ak ni muy doxee man bari na lu may wax ci senegal judduwuma booba mais ci Sidy Lamine laa ko déggee wala sama ay lecture Sidy Lamine dafa tàmmoon benn affaire périodiquement il mm. faisait le tour du Sénégal pour doon seeti les foyers religieux daf doon attirer suñu attention toujours ci benn affaire il disait souvent suñu kër yi dafa am nu ñu war a defee ak ñoom et quand Sidi Lamine suñu kër yi c' est les foyers religieux. Ouais. c' est Medina Baye c' est Léona Niassène c' est Touba Tivaouane ñun bi ñu toogee. ñu coupé signal Walfadjri la la deuxième fois mooy événement yi amoon Mbacké ci lañ jëloon résolution ne on va faire le tour pour rencontrer tous les xalifs de ce pays expliquer leen la situation bi mu nekk parce que ñoom ces xalif la ñoom ñëpp ay doomu daara lañ. et très souvent ñoom ak yeneen doomu daara yi buñ dee xool Walfadjri dañ koy gis comme leur propre bien dañu gis Walfadjri comme une victoire des doomu daara. suir ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab. Hmm. pourquoi parce que doomu daara moo créé fajiri jàngul journalisme comme li ñuy wax ci Cheikh Bara ni nii mais créé Walfadjri di employer des gens qui sont sortis du CESTI qui son sortis d'ailleurs di jël ay stagiaires yu jógee ba France tey jii ñu bokk ci les responsables de fi wala feneen doomu daara moo ko def. Hmm. Sidi Lamine Niass donc ñun li ñu def mooy su ñu amee problème on se dit on fait exactement ce que Sidi Lamine nga bi ñu defee la conférence de presse du vendredi. Hmm. ci lañ décidé ne écoutez demain on va à Touba ñu seet xool ñan ñoo ñu war a mën a aider lañ dëkk ñu xool ñoo xam ne nee nañ ñu bu ngeen ñëwee di ngeen gis sëñ Mountakha et que effectivement sëñ Mountakha les samedi ñëpp xam nañ ne ci lay recevoir nit ñi gën a bëri parce que ci la daayira yi ñëw affaire mm. yooyu biñ ñëwee ci këram dañoo fekk kër gi fees dell dell dell dell on a pris tout notre temps ay booru 13 heures lañ fa toog lañ fa fekk tàkkusaan fa lañ fekk bàyyi ko mu def ay audience am recevoir ay taalibeem daayira yi ku nekk mu wax la li mu la bëgg a wax ñaanal la ba pare ba saalam ba vide mu ñëw ñu toog ñun ak ñoom rek ñun ak moom rek ak ñi koy jàppale ci liggéeyam ñu wax ko aram li nga xam ne moom la ñuy wax dans les médias tous les jours. Hmm. mooy dañu tëj Walfadjri pour un mois. ay père ak ay meer de famille ñoo fa nekk di liggéey gën gaa néew war nañoo mat ñaar téeméer il ne sont pas sûrs que ni weer wii di ñëw dinañ fayu salaire ils ne sont pas sûrs que ni tabaski dinañu am am xar on a été hmm. bi ñu paree mu ne ñu njabootu Sidi Lamine ak njabootam la yemale parce que diggante lew nañu seen ak Tiwaawan ak Touba mu benn la. te hmm. sëñ mu c'est comme ça qu'il fonctionne. pour moom këru diine yëpp këram la. Ah. mu ñaanal ñu ñu génn di ñibbi te ñun bi ñu amee loolu Pa Ousmane. Hmm. on était satisfait parce que man wax naa ko clairement ne ko sa jëmm ji day faj soxla boo ñu ñaanalee mu faju mais li ma ci gën li ma koy gën a wax mooy man xam naa ne bu jëlee téléphone am wax ne signal wal faj wal fajir dina dellusi signal bi dina dellusi te dama ko wax mu leer. Hmm. ñu pare mu ne nañ ñu yóbbu ci benn salle jox ñu ay lu ñu xéwloo affaire njaayeen yooyu. ñu <laughs> dem toog añ comme naturellement. ba pare julli tàkkusaan jël suñu bagage nit ñi bi nañu. aram bi ñu demee bay génn Touba suñu téléphone sone ñu wuyu ñu ne ñu sëñ bi nee na ngeen delsi ñu wàññeeku bi ñu wàññeekoo ñëw toog muy jël kenn ci njabootam muy Serigne Moustahine Mbacke di doomu seriñ Moussa Noël Mbacke. Mm. jox ko 5 millions ci enveloppe ne ko jox leen ko ne leen maa leen ko jox te. lii sama ndimbal la ci ñoom mais lu ma mën a def. Hmm. pour ñu génn jafe-jafe yi nekk dinaa ko def voilà ce qui s'est maanaam nit yi ñoo si yokk ne dina woote pour signal bi deñ dina lii dina. xam nga euh, man man maa ne ko man maa ne ko man xam naa ne bu jëlee téléphone am wax mu dañ. parce que xam nañ sëñ Mountakha mooy kan kanam mais après nit ñi ñooy génn naan nee na dina woote dina woote affaire yooyu li mu wax mooy lépp lu mu mën pour que ñu delluwaat suñu liggéey ci jàmm ak salaam il le fra foofu mais est-ce que depuis boobu ngeen fa demee ak bi ngeen yegsee ak ni ngeen ñaawloo. Mhm. ni ñu ko coupé parce que même déglu nañ la PDG bi muy expliqué ne dañu xam ne ñu ngi def live bi moo tax ñu gaaw. Mhm. comme ni mu ko waxee càq càq yónnee càq càq ñu indi. Mhm. gis nañ sax même kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu. corporation bi ñaawlu ko. Mhm. ñu bëri sax jàpp ne bu doon dagg la feneen la doon jaar. Mhm. mais est-ce que diggante bi ngeen ko ñaawloo ak ñi ci ànd ñaawlu ko ngeen ngeen jóge Touba est-ce nañ sentir ni. Mhm. loolu ngeen ciy xaar mooy mu rétablir que loolu mu ngi ciy am. jamono ji xam nga sànq dégg naa defe naa le premier ministre. moo ko wax oui euh, déggee muy wax <laughs> xëy na ñoom également de leur côté ñi ngi xool comment faire pour indiwaat signal balay boobu. mais pas Ousmane li am solo pour man. mooy on n'avait pas su fekkee ne li ministre Abdou Karim Fofana bi wax rek la mais je crois que Ismaël Madior Fall l'a dit sur ces genres de cas-là tu le tribunal des pairs. Ouais. correct oui il règle problème. su fekkee ne le journaliste bi ko def dañ ko war a dañ ko war a sanctionner euh, pour quelque temps mu génn ci mu génn ci euh, enfin ñu génn ko wala ñu retirer sa carte de presse. Hmm. mais yooyu yëpp am na fi c'est prévu euh, ci texte CORED yi. après tu te dis que man dama dama togg mu jàgg man rek ak yàlla ma ne man dama yaakaar ne Sénégal dafa am benn lu gouvernement bi décidé mooy s'il y a problème il faut que Walfadjri tëj bañ régler ko ba pare. maanaam da nga jàpp ne kii dafa yeewu rek maître Moussa Bokar rek ne. est-ce lui. ah justement. est-ce que c'est lui parce que man parce ah. que man ñëpp déglu nañ ma plusieurs fois. j'ai critiqué ce que Moussa Bokar a fait parce que man dama nekk euh, nu ñu koy wax sax légaliste man dama nekk républicain. maam Birame Wathie ma di souvent que ne toogal foofu naan républicain rek <laughs> man <laughs> dama nekk républicain quand ma euh, suñ ma joxee kayit ne ma le ministre Moussa Bocar Thiam moo ko signé su may wax moom laay wax moom laay wax. parce que moom moo ko mais. Hmm. man j'ai eu Moussa Bocar Thiam au téléphone je crois bi ñu coupé jeudi je crois qu'on s'est parlé au téléphone le mardi mais man ki ma waxal. Hmm. mu wax ak man ba pare. ça m'étonnerait que ça soit lui. lu ngeen wax. jàmm ak salaam. oui je lui ai dit eh. ni il faut que gouvernement wu Sénégal arrêté di traiter Walfadjri comme média bu bokk ci benn parti politique ñun bokkuñ ci parti politique on ne fait la politique d'aucune formation d'aucune formation seetaan journal yenn saa yi da ngeen ne mi dara doxul de dinaa ñëw léegi ci ligne bi lañ koy dóori nag <laughs> ci ligne bi la koy dóori dinaa ñëw léegi ak configuration format yenn plateau yi c'est important fi ngay dugg noonu mais amul benn problème on on peut en parler comme vous voulez je n'ai aucun problème avec ça pour ñu éclairer mais quand j'ai parlé avec Moussa Bokar Thiam euh, qu'est-ce qu'il me dit euh, yow Moustapha billaahi su ma ko waxee amul na ñëw fi mu wedd mu ne ma yow Moustapha kenn déggul ngay wax nit lu ñaaw wala ngay wax nit lu tegginewul ñun on comprend exactement ta façon de fair les choses et il on comprend également que ni un média boo ko yoree dafa am ay diffé les journalistes ils ont des différentes sensibilités yu bokkul man ni may waxee Pape Ousmane n'est pas obligé de parler comme moi keneen noonu on a discuté de ça ma ne ko man su fekkee ne billaay ni laa ko wax ma ne ko su fekkee ne mën nga nekk notre porte-parole auprès du premier ministre ou du président il faut les rassurer leur diir que ñun duñ seen duñ seen ay adversaires et après je me suis su fekkoon ne moom la mais pourtant day yomb ci moom mu ne Moustapha man maa man maa ko man maa demandé suspension bi lu ma ko mënal man lu ma ko dara. mais man j'ai découvert que c'est lui jour bi ñu toogee di def. Euh, ah, ni ñu koy waxee sax la conférence de presse donc je les suis en même temps que tous les autres sénégalais parce que fi ma toog Cheikh Niass moo ko lire. jox ma ko ma lire j'ai vu que c'est le ministre de la communication après je me suis mais attends c'est le même homme avec qui j'ai parlé mardi ça pose problème. Mm-hmm. ça pose problème donc. ci waaw ci ligne bi parce xam nga la ligne éditoriale de de Walfadjri. dafa obligé chaque fois muy muy nekk noonu rek. aspect négatif bi rek. non xam nga soo ko bëggee reprocher Moustapha Diop. jóob danga koy tooñ parce que man falaa ko fekk ñi fa doon liggéeyee ñi ngi may seetaan fa ko fekk fa lañ ko bàyyi Sidi Lamine Niass moo defoon benn choix moo di deman damay teg une télévision boo xam ne sénégalais yi am ay jafe-jafe te amuñ fu ñu ko waxee ñu waxe ko fi. ñu waxee ko fi tey booy seetaan le journal de de Walfadjri comme dit Aram. Hmm. man nga ne réew mi dara doxu fi. sauf que ñun dañoo am lu yomb te man loolu euh, wax dëgg yàlla c'est ma façon de voir le journalisme hmm. peut-être je peux me mooy man je ne la communication de qu'un guvernement hmm. si le guvernement fait ses réalisations bëgg ko ko waxal na dem fay une communication pour ñu waxal ko ko <laughs> et d'ailleurs gouvernement bi day fay une communication pour ñu waxal ko ko la RTS li muy wane ci gouvernement bi boo ko seetaanee mel ni réew mi lépp a dox comme Japon wala euh, je ne sais pas ah, moi. Hmm. France wala États-Unis mais RTS dafay recevoir chaque année une subvention de l'État du Sénégal plus les publicités yi muy am ñun on ne reçoit d'aucune aucune subvention de l'État l'État bu amee sax ses ses annonces affaire faire ses publicités institutionnelles du ko jox ba pare ngeen bëgg. ñun ñu koy euh, naan ko sa BRT bi rafet na sa TER rafet na ñoo bañ. d'accord mais mu je le fais defuñu procès wu Walf mais c'est important. on peut le faire. oui non <laughs> du tout pour ñi nga xam ne xëy na duñu comprendre laay waxal mais c'est-à-dire de plus en plus dafay ñëw te dafay am solo fi ñu ci mm-hmm. toll nii. Mm-hmm. mu am ay leeral yoo xam ne euh, parce que man souvent dama koy wax. dama du ma werante ko xamul dara ci métier bi. mais boo mm-hmm. laajtee mën naa la wax. bien sûr man ci logique boobu laa nekk moo tax laal na sànq ligne éditoriale bi ci journal bi. Mhm. mais même boo ñëwee ba ci format plateau bi. Mhm. am nañu jàpp ni cest di amul possibilité pour que le mhm. pouvoir d'en face. mën am possibilité également sore ci loolu. du émission yëpp nag. am na ci yenn yoo xamante ni cest di boo xoolee dangay gis opposition activiste boo xam te ne day wóor na kii daanaka bu fa opposition bi nekkul mën naa wax seen tour keneen noonu doo gis en tout cas. beneen son de cloche bu lay permettre au moins ñu mën a équilibrer. Mhm. loolu aussi dañ la koy teg seen dodd mhm. mooy ñëw ci. wàllu daal dafa am lu dafa am lu Sidy Lamine Niass doon wax. dafa doon wax ne bu leen jaawale équilibre ak équilibrisme. xam mhm. équilibrisme mooy la mooy lan mooy su faa faree B Pape Ousmane far A il faut que su faa waxee Pape Ousmane wax par force. dangay dem ba tu fais de l'équilibre tu fais de l'équilibrisme et ñun on fonctionne pas comme ça gis nga damay jox un exemple simple pour wax la ne ñun amuñu problème yooyu man maay directeur Walfadjri maay animer l'émission Pencco tous les chroniqueurs qui sont autour de moi ci ci Pencco c'est des gens yoo xam ne bu ñu waxee nga ne ñiy Macky Sall rek la ñuy bañ a gis et vous et vous pensez que moi je le sais pas je le Et il m'arrive très souvent, parce que man je ne coordonne pas mes émissions, c'est Issa Tine qui fait le travail. Il m'arrive très souvent que je lui dis Issa, prends deux de, du, de la mouvance présidentielle ak kenn de l'opposition. Je ne suis pas obligé de le faire. Hein. Mais je le fais parce que damay damay dem ba mu jàgg dama naan bëgguma kenn ci pouvoir bi ñëw et se sentir très seul sur le plateau. Mais Pape Ousmane, hmm. un chroniqueur, la chronique ci boppam. Hmm. ci ñi jàng journaliste ñu koy jàngal. La chronique bu ñu koy ci yan genre lañ koy classé. critique les gens d'opinion ci la cronique bokk ci li ma jàng su su fekkee ne changé nañu wax ma ko ci la bokk mais opinion ku ko wax wax nit man su ma toogee ñun fi ñu toog nii sur un sujet on peut avoir les mêmes opinions man les chroniqueurs que j'ai seen ay opinions je les gère pas parfois je ne suis même pas d'accord ak ñoom mais je les gère pas il est arrivé plusieurs fois je ne sais pas si les gens font attention à ça oui. il est arrivé plusieurs fois sur mon plateau ku mel ni Pape Makhtar Diallo daf may mere daf may mere parce que day bëgg a wax ma ne ko da nga noppi mais ce sont ses opinions ay opinions mënoo ñëw ne ko da nga koy changer par force dafa am benn temps dama toog mu jàgg ma ne Cheikh Ndiass xam nga qu'est-ce va faire man ma ma ne ko on va chercher au Sénégal un chroniqueur boo xam ne bu ñëwee dana nekk au moins pro pouvoir <laughs> comme ça on va nous laisser tranquille quoi mais tu cherches tu trouves pas <laughs> ah foo koy jël Moussa loolu. loolu renseignement la <laughs> <laughs> foo koy jëlee les quelques les quelques gars yi nga xam ne ñoom ñooy wax parfois lu arranger le pouvoir soo leen waxee ñëwal wal fajiri ñëw la non <laughs> man dama am sama benn sama chroniqueur yi chaque fois daf may dañuy waxtaan da daf may ree parce que dama xaw a yab Aliou Sow. damay gis nit ñi dañ koy hmm. saaga très souvent. am na ñoo xam sax dañ naan ñu ne Aliou Sow jugee wal fajiri may leen wallaay du fi juge parce que ce qu'il dit ce moom la engagé ce sont ses positions bu ñu respecter les positions de Moustapha Diop il faut respecter les positions de Aliou Sow ce qu'il dit si ça arrange le pouvoir de Macky Sall c'est son problème hmm. su ma bëggee man ne Mame Birame Wathie li muy wax arrangé wul le pouvoir de Macky Sall je lui dis rien su Aliou Sow waxee lu arrangé le pouvoir ma ne ko tey nga noppi mais y a problème du ma ne du ma ne kenn noppil mais du ma obligé kenn ne ko waxeel mi parce que man ma façon de voir les ma façon de dire les choses man rek la engagé engagé wul keneen leurs opinions sont libres. les opinions sont libres et d' ailleurs Aram nga baal ma rek. gis nga démb bu bërki dafa dafa dafa metti démb démb bu bërki den dafa am euh, eh, kenn ci wàllu quoi ku ne ma yow mi yaa ñu tooñ ma ne ko lu tax mu ne ma ñoom Abdou Karim Fofana ñi ñoom Pape Malick Ndour ñoom ñëpp yàlla def ay ministre ma ne tax mu ne ma yow yaa taxaw fii ci élection législative yi. Hmm. ne Macky Sall su bëggee ku tontu ñoom Ousmane Sonko te Sénégalais yi di leen dégg il faut mu tànn ay jeunes yu bokk ak ñoom âge di wax ak ñoom mais mënoo am Mimi Touré am Ousmane Sonko su mi su Ousmane Sonko waxee midi Mimi Touré wax une heure du matin les jeunes vont écouter Ousmane Sonko ils ne vont écouter. après gouvernement bi ñu ñu dugg ñu génn ci élection yi gars yi tas gouvernement bi ñu ñu ma doon tudd yëpp ñu def la ministre ñu ne ma yow la ma ne leen xayrul mais c'est les mêmes personnes qui nous insultent aujourd'hui <laughs> alors est que taxawaayu Walfadjri hmm. ci orientation yi nga xam moo indi tey. Mhm. Euh, ku mel ni Pape Ndiaye ñu teg ko loxo ku mel ni Cheikh Baara ñu teg ko loxo. Mhm. Mame Biram Wàcc ñi ngi fàttaliku. ko fu ñuy waxee ne moom itamit mu ngi jot ay ay ay menaces. Mhm. ñu fàttaliku itam. am na période boo xam ne woo nañ la également pour pour pour entendre. taxawaayu Walfadjri moo indi loolu euh, ñu koy teg ci ñi nga xamante ne ñu ngi fay liggéey yoon la. Mhm. wala nga jàpp ne euh, acharnement la wala euh, nooteel bu ñu bëgg a teg seen kaw. gis nga woote yooyu ñu lay ñuy woo. Hmm. ñeen ñi dem prison ñeen ñi ñu leen di menacer de mort euh, parfois da ngay dégg yenn Sénégalais di wax ci Walfadjri c'est comme si ñun loolu daf ñoo neex quoi cest ni dire que ñun on éprouve du plaisir. oui ci taxawaay bi oui. Aram boo seetloo Walfadjri Sidy Lamine est décédé en décembre 2018 jusqu'en mars 2021 kenn dégguñu ci dara. Mm-hmm. on avait fait le choix de faire notre job et de la fermer. kese liggéey wàcc liggéey wàcc mais mars 2021 le réew mi jaxasoo ci événement yooyu le pouvoir à tort vraiment à tort hmm. à penser que ni Walfadjri dafa bokk ci li nga xam ne moom moo koy poser problème problème yi foofu la jóge te menaces yooyu li ci gën a garaaw te hmm. man loolu dafa ma daf ma metti musuma ko raconter ni ma koy raconter nii da wax naa ko feneen hmm. man dañu jël sama numéro téléphone def ko ci benn group xam nga dañoo dañuy créer ay groupe mm. def ko ci benn groupe ne du du ma répéter mooy parce que par respect pour ñuy seetaan. voici le turik de Walfadjri saaga saaga leen ko ñu may yónnee ay saaga yoo xam ne saaga fu mu gën a ñaawe ay menaces fu mu gën a ñaawe li ci doy waar am ku ne ci groupe bi comme daf ma xam mu copier la message yónnee ko sama yaay sama yaay ji ma jur. mu gis ko ñu wax ko parce que moom du ko liir parce que mënta lire mm-hmm. mais ñu ki mu ko woon wax ko exactement lan moo tax ma ne ci groupe bi ak li ñu may wax man loolu lan moo ko gën a metti man sama yaay daf ma man maanaam bàyyiwuñu sax ba sa famille ba sa famille man su fais mon mon travail euh, j'ai des parents yoo xam ne ça les intéresse même pas de savoir ce que je dis ou ce que je dis pas et j'ai tout fait pour que li may li may wax ak di ko def mu bañ leen concerner en rien du mais gis nga loolu mm. bu ñu ma convoqué woon dix mille fois loolu moo gën a metti. a senti ci période bi la convoqué bi nga génnee bi def sa discours bi nga tuddee sa yaay mu mel. da nga parce que ça m'a fait loolu ah. ça m'a fait mal Pape Ousmane. ça m'a mal très mal parce que man samay euh, waajur ñoo ma def li ma nekk fay ay études ba ma xëy suba am liggéey liñ ma defal mënumaa fay centime ba. ñu noppal ma noppal goo xam ne kenn mësuma cee woo ne ma. li ngay def lii wala laa ça les intéresse en rien du tout mais nit mën na jël saaga yu mel noonu di la ko saaga te koo xam ne li ci doy waar Pape Ousmane mooy wax nga ko sànq hmm. ne y a des gens qui parlent de nous buñ laajee ñu wax leen parce que xamuñu mais li ci doy waar mooy da ngay gis ay ñu duma leen tuddee kilifa mais des gens qui son présent dans les médias ñoo xam ne aram xamuñu la en privé xamuñu la en public Mm-hmm. mus ñu liggéey ak yow mus ñu toog ak yow une heure de temps yu mat pourtant dañuy wax ci yow ba géex saaga la ba kontaan say waajur di ko dégg saaga la ba kontaan dama toog bu jàgg ma ne du ma ci tontooti bàyyi naa leen ak yàlla mais pour en revenir à ta question Aram euh, Pape Ndiaye Ismaël Madior fal wax na ko sànq mm. dafa toog il fait sa chronique comme ni mu koy defee tous les jours enfin tous les jeudis dans l' émission Petit Déj on lui dit de traiter des questions liées à l' actualité judiciaire moom lay traité joxe une information ñoom nee nañ c'est une fausse information ba léegi indiwuñ la vraie information ba léegi mm-hmm. Pape Ndiaye di ko def man j'ai découvert ce que Pape Ndiaye a dit mm. sur les chaînes YouTube parce que man Pape Ousmane xam na ci dara. heure yi émission yi daw matin amul benn ma ci seetaan parce que man guddi gi laay liggéey. Mm. heure yooyu damay nelaw. bi ñu indee la convocation de Pape Ndiaye indi ko sama bureau jox ma ko. j'ai appelé Cheikh Niass ne ko j'ai convocation pour Pape Ndiaye mu ne ma taxal ma laaj ko ba xam ñu ko Pape Ndiaye laaj ko mu ne taxal ma laaj sama avocat ñu avocat laaj ko mu ne nañ ko décharger ma jël ko décharger ko j'ai appelé Pape Ndiaye ne a wax. li ma wax dans l' émission Petit Déj la parce que sama ay sources wax nañ ma ko Pape Ndiaye nag il hmm. n'est pas comme moi c'est un journaliste très mais bu bu la nit ñi dee waxal ci Walfadjri naan waaw dañuy taal réew dañuy wax hmm. lii dañuy wax la c'est comme si ñun on éprouve du plaisir oui. à voir Pape Ndiaye ñu garder ko en prison depuis quatre mois à Sébikotane loin de sa famille à voir Cheikh Bara Ndiaye en prison à voir Mame Birame Wade Moussa Mame Birame Wade ak euh, Pape fii ci zone B vous pensez que ça nous fait plaisir ça mais ça ne fait ça ne nous fait pas du tout plaisir mais on se dit juste que tant que ñun on a le sentiment de faire notre travail comme ni ñu ko war a defee luñ ci fekk baax na le jour où man Moustapha Diop je sentirai que ni en quoi que soit on a fauté hmm. on va l'assumer mais et on va prendre nos responsabilités mais tey Pape Ousmane hmm. bi ñu mujjee couper signal Walfadjri su ko Babacar Diagne coupé woon hmm. woo ma ne ma lii moo tax ma coupé ko du ma d'accord ak moom mais je l'aurais accepté xam nga lu tax c'est un professionnel des médias mm-hmm. li muy def xam na ko mais quand Babacar Diagne m'a appelé au téléphone ne ma Moustapha dégg naa ngeen naan dañoo suspendre seen signal CNRA la maa la wax ne du CNRA mais ça veut dire ni ki ko def xamul li xew mm. ñun li li waa ji wax ne ñun ñoo ko wax mm. su fekkoon ne ñun ñoo ko wax ba pare mu mérito ñu dagg signal bi Babacar Diagne da koy def. oui mais Moustapha parce que pour pour pour beaucoup moins grave que ça Babacar Diagne suspendre na signal Walfadjri. est-ce que ni ngay expliquer di junj acharnement bi la Aram doon wax ni est-ce que finalement. junj ma ko je l'assume acharnement la. justement mhm. est-ce que au de explication yi ngay joxe nii ni ligne beeg yooyu. Mhm. ñi jàpp ni. peut-être seen rapprochement suñ ko mënee waxee noonu entre guillemets. parce que mhm. am ñu koy junj. seen diggee Pastef. Mhm. xam nga foofu indi. oui foofu nag dafa am. loolu réeroo bu metti bu ci am. Ah. xam nga man Pape Ousmane buñ ne ma rapprochement Walfadjri ak un parti politique. Hmm. man damay xool lu simple mooy parmi nous est-ce que am na ñoo ci xam ne dañu am euh, dañu nekk ay sympathisants au Pastef d'abord ça n'existe pas. billaahi wallaahi. fu ba mu waj ba mu daj. mën naa ko ci waatal kenn ku ne y a pas de journaliste de Walfadjri. qui fréquente des gens de Pastef man mii di wax ak yow nga xam ne maay directeur Walfadjri lu nekk dégg naa ko ci Ousmane Sonko Moustapha Diop pa Ousmane bu ñu àndoon cité kër góor gi. nga wàcce ma fa ne ma yóbbu ba kër Ousmane Sonko barke unité bi xaw ma ko musuma faa dugg j'ai jamais été dans un endroit boo xam ne man ak Ousmane Sonko ñoo fa toog di waxtaan. à part les bi mu ñëwee Walfadjri. seet suñu je le fréquente pas te. kenn laa gis ci ñun mu toog kër Ousmane Sonko muy Pape maxtar Diallo Pape Makhtar Diallo ne fait pas partie de la rédaction de Walfadjri chroniqueur la fa am na droit dem fu ko neex il est libre de fréquenter qui il veut c'est pas problème et c'est d'autant plus vrai que il ne il détermine en rien le travail qu'on kon fan la jógee je sais pas peut-être li ñuy wax moo arrangé Walfadjri moo arrangé euh, nu ñu koy waxee sax le Pastef et et dafa am benn sénégalais bu nekk Italie bu ma woo benn jour mu expliqué ma ko ci lu yomb mu ne ma Walfadjri mi ngi mel ni benn garab rek bu yore keram nit day dox ba toog ca yaakaar ne ker gi moo ko moom parce que ker gi da ko arrangé mais bu génnee ker gi na ci naaju keneen ñëw taxaw rek mu ne ah kon ker gi kii moo ko moom il fut un temps où on disait que ni Walfadjri Macky Sall la fi nekkal. Mm-hmm. Sidi Lamine Niass daana toog ba guddi mu woo suñu correspondant bi nekk Kaolack Mamadou Matar Sarr ne ko jëlal Jakarta nga dem Fatick jël Macky Sall balay fajar ñu jaar la ko journal bi ça on l'a jamais fait pour un Pastef pour un gars de te ma wax la beneen affaire. Hmm. les gens de Pastef je le dis pour ñoom. Hmm. ils ne nu ont jamais jamais de la vie demande un service jamais jamais les gens de Pastef ont demandé un quelque mësuñu ñu woo sax ne dañu bëgg ngeen invité ñu. Hmm. gis nga l'entretien que Pierre-Édouard Faye a fait ah, ak Ousmane Sonko à Ziguinchor am na ku ma dégg mu ne waaw euh, dañoo préparé wu waa Pastef ñooñu yóbbu mais attends c'est que les gens ils racontent des contribuer justement li ci am dafa bëri xam nga quest le dis te te keneen du la ci wax leneen parce que nag ruus naa toog fii di wax loo xam ne ñoom Pierre dañ koy seetaan naan Moustapha day fen mhm. Pierre-Édouard Faye moom moo toog ba mu neex ko mu ne Moustapha il faut ma dem Ziguinchor ma ne ko pourquoi yow mu ne parce que la tension ak li fa xew je préfère mu nekk man parce que sama responsabilité la xëy na bu yónnee benn reporter mën na waxee neneen ma ne ko d'accord y a pas de souci j'envoie un message à Cheikh Niass ne ko il faut nu aider à aller à Ziguinchor mu ne ma sans problème il donne l'argent on achète deux billets lu caméraman ak Pierre-Edouard Faye ñu dem Ziguinchor ils arrivent là-bas le jeudi le le vendredi sur le plateau de petit déj ñu ne dañuy jël Pierre en direct ñu jël ko direct mu wax li muy wax ba pare Aïcha Diakhaté mi présenté émission bi toog fii aram toog moom moo ne Pierre defal loo mën nag pour interviewer Ousmane Sonko Pierre ne ko j'en profit pour lancer un appel à Ousmane Sonko je lui dis que nous à Ziguinchor su bëggee ñu interviewer ko dans les conditions yu mu bëgg ñu toog ba booru 16 heures ma tëdd fii sama kër di nelaw El Malick Ndiaye bu Pastef du ma wax lu amul du ma leen waxal lu amul woo ma téléphone ne ma Moustapha dégg naa yéen a ngi Ziguinchor ma ne ko waaw mu ne ma est-ce que ça vous intéresserait d'interviewer Ousmane ma ne ko mais bien sûr CNN boo leen waxoon leen interview ñu ne waaw contexte boobu noonu oui France 24 noonu ma ne ko ah. mais bien sûr mu ne ma léegi je vais te mettre en rapport avec quelqu'un qui est nga wax ko fu Pierre nekk on organise ça ñu organiser loolu waa ji woo Pierre ñu ànd dem kër Ousmane ko aram hmm. xam nga Cheikh Niass kañ la yëg ne Ousmane Sonko day jaar Walfadjri hmm. booru vingt heures jàpp vingt une quoi pourquoi parce que man maa def choix ne Walfadjri ñetti nit ñett ñoo fay yëg ne Ousmane Sonko dafay jaar muy man Pierre-Edouard Faye ak René Charles Fall le chef de monteurs ak peut-être le caméraman bi nekkoon sur le terrain parce que naturellement ouais. donc on était quatre dans toute la maison on était quatre à le savoir jusqu'à ce que Ousmane Sonko commencé di apparaître ci suñu écran wu régie yi. pourquoi nga defee ko noonu. gars parce que je voulais garder ça parce que ñun on a vécu l'expérience. Mm. quand Ousmane Sonko benn jour dafa décidé ne day ñëw seet si ñu Walfadjri parce que dañoo dagg suñu signal ba ñu ko waxee paree guma téléphone un commissaire de police m'appelle ne ma dégg naa Ousmane Sonko day ñëw seen kër donc ñun ce qu'on fait dañuy xam duñ ay dof. Hmm. on gère ce qu'on gère on n'est pas. <laughs> non non non mais Aram tu diriges pas un média comme Walfadjri di dof dof lu da nekk nit. on a gardé ça pour nous. Pierre a commencé l'enregistrement comme da koy def Ziguinchor et on enregistre directement ici. Oui. quand ti la commencé à apparaître sur les écrans nga gis les gens de Walf <laughs> ñëw di xool ñu Ousmane Sonko gis nga bi ñu defee enregistré ba wolof bi jeex. Hmm. boo wolof bi jeex bañ mettre ko en boîte comme on dit. <laughs> ci laa woo man Moustapha Diop Cheikh ñas ne ko tey damay annuler l'émission Pencco parce que Ousmane Sonko la ñuy enregistré on pensait que dañ koy teg avant Pencco mais on en retard te bu ñu ko tegee buy jeex ay minuit une day jot. donc c'est mm. pas la peine de faire Pencco mu ne ma super lii la ci am le lendemain ngay dégg ñu naan la lii la lu ma lu ci leen lu ci keneen wax du loolu amul. leneen mooy mhm. situation bi euh, Walfadjri di dund mhm. est-ce que du ngeen toog ba ay jamono mhm. wala ngeen toog fan yi daal di ne euh, Sidy Lamine Niass manqué nañu ah mais bien sûr mais bien sûr Aram parce que Sidy Lamine déjà euh, dafa amoon benn dimension bu mu amoon qui faisait que yii di xew nii hmm. parce que daana xew bi mu fi nekkee mais yow da gis nga maa ngi fàttaliku Syrie dara daan am yenn yu xew fa Walfadjri nekk au centre de l'actualité yow si tu es sous pression nga nekk ci benn tension bu extraordinaire parfois même tu es paniqué. Hmm. nga dugg bureau Sidy Lamine fekk ko mu def tànku neenam yooyu <laughs> soo ñëwee il un grand sourire mel na dara xewul Sénégal il te rassure tout de suite tout de lu coow lu bëri bëri dérangé wu ko. Hmm. quelque comme ça soo demee ba nga toog ñu ne Pape Ndiaye mii ci kaso bi. Euh, Ndéla euh, comment ça s'appelle euh, Coro Coro Maxu Mandela <laughs> jàpp nañ ko fi elle est en liberté provisoire Cheikh Bara Ndiaye mi ngi ci kaso bi Moustapha Diop convoqué nañ ko fi sûreté urbaine ñoom ma Birame Wathie ils reçoivent des menaces de mort tey jii bari na ci ñun ñoo xam ne je sais bi amatuñ lu ñu def parce que télé bi tëj na mais tout cela réuni da ngay toogum jàng nga ne mais attends su fi Sidy Lamine Niass nekkoon du demee noonu te foofu la Sidy Lamine Niass di manqué hmm. mais en même temps tu te dis faut que je sois à la hauteur xam nga dañuy wax ne les événements day forger doomu aadama. Hmm. mais man mars mille vingt et ak léegi defe naa li ma fi jàng. Hmm. jànguma ko si sama carrière journaliste bi nga xam ne maa ngi ko démarré en deux mille. deux mille ba deux mille vingt et ci presse bi ma fekk. lu fi xew li fi xew yépp loo ma ci laaj deux mille ba deux mille vingt et ma raconté ko léegi parce que damaa yàgg a nekk reporter man je suis un de terrain. Hmm. bari na lu fi xew fekke naa ko. bi ñuy jàpp Idrissa Seck wala boog bi ñu koy waaj jàpp ci biir këram la ma fekk ci biir këram bañ ko placé en garde à vue au euh, fële dikk dugg naa ba ci biir bureau commissaire Assane Ndoye man ak Aïssatou Diop Fall boo ko laaj ma wax la ko ak ñeneen yeneen ak yeneen. mais mais mais mais je me diggante deux mille vingt et en tout cas bi Sid Lamine bi Sid Lamine jugee ak léegi mm. li ma fi li ma fi jàng ma ko fenn lool loolu je sa que forge un homme. gis nga boo seetloo aram 2018 ba vingt et même après seetlu wal leen. Hmm. Euh, Cheikh ñas ñu bari xamuñu ko woon. doo ko dégg mu wax fenn duggee sax doo ko gis fenn. fenn il est arrivé même ay nit ñëw di ñu seet si Walfadjri ñu ne Cheikh génnal recevoir leen mu ne non non non leen rek. parce que il avait fait le choix que ni du apparaître fenn kenn du ko gis fenn sa seule mission c' est de faire perpétuer l'héritage bi ko son père bàyyi mooy dañ ko obligé mu génn mais bien sûr voilà que est ce que parce que bi ñu gisee euh, mu commencé génn mhm. euh, sànq arab mu ngi wax woy sii di da leen mhm. mais beneen côté bi dama naan moom xanaa stylam dafa bokkut ak xëy na. Mhm. bu wéy juróom bu góor. mënuñu bokk. voilà parce que li koy li koy firndeel mooy même ba ci déclaration bu mujj bi. alors daf ci wax loo xam ne xëy na peut-être di ñu aider à ce que ñu comprendre lan moo waral mu wax loolu. Mhm. finalement acharnement bi li ko waxee rek mooy nii gatsa gatsa. Mhm. léegi lu ngeen def ñu delloo leen yemu ca mu woote nee na manifestation marche. jëm ca palais xam nga euh, nit. dinay dem ba mu jàgg euh, les événements da koy pousser à mais Pape hmm. euh, neexul. sa papa bàyyil la euh, une entreprise de presse wax la nga dégg sa nopp ñun ñu dégg Sidi Lamine wax su wax ne Walfadjri ay doomam duñ ko donn héritage yu sénégalais yi la yow tu es avocat en France noon nga ne comme héritage yu sénégalais yi la sama yoon nekk je reste là-bas je fais mon travail je perçois mon salaire su weer enfin mes émoluments su weer su weer bi dee ma ñëw seet si leen dem sa yoon tu dis j'abandonne tout je viens au Sénégal Cheikh ñas voilà un garçon boo xam ne hmm. euh, ñun li ñu sonal ay mbuub bu rafet ak oto bu rafet ak hmm. yooyu il n'a pas ces problèmes oto papaam lay dawal ba léegi <laughs> keroog bi ñu dem Touba <laughs> laa bay dañ ne ko oto siidi ba mu tëdd parce que ci yoonu lay paan parce que effectivement oto boobu lay yor deux jours yu ne mécanicien yi ñëw tijji ko un garçon comme ça su demee ba waxee noonu c'est parce que je me dis quelque part man je le comprends dafa sës parce que nag man yàlla def na hmm. il me ci lu ko jaaxal lu ko naqari lu mu bëgg a wax lu mu bañ a wax et cetera keroog bi muy wax maa ngi toog. Hmm? su bu doon man maay wax peut-être dinaa waxee neneen nu dul noonu. Ah. mais je le comprends parfaitement et je le soutiens entièrement parce que da ngay toll foo xam ne tu te man li ma waroon def yëpp def naa ko Cheikh Cheikh Niass nit ñi dañuy wax ci loo xam ne man parfois daf may daf may daf may jaay xam nga Cheikh Niass musul toog ci réunion bu ay journalistes Walfadjri toog. am. Cheikh Niass mosul dugg ci rédaction Walfadjri Cheikh Niass mosul xam lan ak lan mooy génn ci journal Walfadjri jamais. man mii man mii di directeur bi sax xamatuma lan mooy ne ci journal Walfadjri c'est le rédacteur en chef qui gère son journal bari ki dem dafa am doomu Sidy Lamine Niass bu ñëw. na na naa leen ko nettali c'est nos secret mais nañ ko waxtaanee mu <laughs> leer dafa am doomu Sidy Lamine Niass bu ñëw. Euh, fekk ma ma toog sama bureau man ak Pierre Edouard Faye non Moustapha fan yii yëpp maa ngi fiy ñëw ñëw naa fi le matin nekkoo fi ma ñëw fii ñu ne ma ñëwagoo ma ñëwaa fi ñu ne ma ñibbi nga ma ne ko c'était pourquoi mu ne ma non dama la wax ne rek dama bëggoon wax dama bëggoon a ñëw intégrer la rédaction parce que moom journaliste la ma ne ko si si Pierre m'a dit mu ne ma léegi qu'est-ce que tu ma ne ko j'ai pas mon mot à dire Pierre nee na waaw kay lu sama yoon man je la rédaction. je je gère pas la rédaction doomu Sidi man lenn moo may doole boole ci rédaction Walfadjri Pierre Edouard Faye ñibbi ma toog sama bureau benn journaliste ñëw ne ma corrigé ma ma corrigé mais sinon je te le dis. pour les gens qui nous regardent. Hmm. amul luy génn Walfadjri te Cheikh ñas am ci son mot à dire yenn saa yi daal mu woo la ne la Moustapha doo ma dimbali rek diw ngeen invité ma ko parce que mi ngi may woo rek nangam ak nangam. il est arrivé que nit mbokk Cheikh ñas mbokkam. jox ko un dossier ne ko kii dama bëgg ñu jël ko ngeen jëlal ma ko en stage mu jox ma ko ma fàtte ko ay weer mu rus ma ko wax il ne me le rappelle jamais c'est comme ça que nous travaillons moo tax Pape Ousmane les gens nous jugent sans nous connaître demande aux reporters yi ngay dajal ci mbedd mi nee leen est-ce que mas nañoo wax ak Cheikh Niass. xanaa kay kenn ci ñoom soxla ci ab salaire am ak yenn mu jéggi Moustapha woo ko téléphone. d'accord ñu waxtaan mais budul xam naa ne yaa ngi bëgg dugal mais benn laa bëgg a sar rek ci Moustapha fi mu ne kon finalement ay rumeur la xamul fan la bàyyeekoo ni ñu leen bëgg a coller étiquette ne waa Pastef. mais je le mais je le comprends. d'accord je le comprends xam nga tax je le comprends. Hmm. moo di ne euh, dañu dañu dañu toll ci ci réew boo xam ne je suis sûr que yéen vous vivez ça. tey tu fais une émission tu vas parler de Ousmane Sonko par force. Mmh. tu vas parler de Pastef par force waaye léegi boo invité wala Pastef koy invité ñun si on fait penco chaque vendredi chaque vendredi on parle de Pastef waaye léegi da nga naan damay invité waa PDS ak waa APR ñëw di wax ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr oui d'accord ak Pastef. oui mais mënoo ko. d'accord man journaliste la ah du ma je ne suis pas un commerçant de. ça mais bien leneen li ma bëgg wax mooy ni. oui wax nga ni peut-être rumeur la xamoo fan la jógee. Mhm. mais euh, ndax mun nga ñu expliquer aussi le fait que saa yu Walf amee jafe-jafe. Mhm. ñi gën a gis ñu ñëw di ko massawu ci homme politique yi. ci mhm. opposition bi wala ci société civile bi. Euh, peut-être xëy na loolu du problème. mais bu ñu demee ba opposition bi ñëw ci penc ma. yëkkati kàddu. di daal seen yeneen naataango. Mm-hmm. loolu ça ne nous fait rien. ñu dal seen naataango opposition. je veux dire déedéet. Ah. di dal yeneen kër. mais bien sûr. oui bien sûr lu mel noonu aussi oui. bien sûr xam nga Pape Ousmane euh, Sénégal la ñu dëkk nag. am réew moo xam ne dafa am ay réalité démb rek maa ngi ci wax ak Pierre Edouard Faye man duma am problème am naqar am jafe-jafe. Mm. Sénégal gépp ànd ñëw ne dañ may masawu si ñu ne. parmi les gens yi nga xam ne dañu fi ñëw dañuy dara jaale Pape Ousmane jox ko parole mu wax Pape Ousmane wax ak na mu waxee man ma bëgg jëlaat parole ne ko Pape Ousmane d'accorduñ ci li nga wax waroo waxee nii mais nañu waxante dëgg nag buñ buñ ndaxante hmm. c'est pas parce que Guy Marius Sagna parce que nañ ko tudd ah. mu leer parce que moo waral coole c'est pas parce que Guy Marius Sagna dafa waxee nenn ni ci waa TFM wala ci waa 7TV wala ci waa Sans Limites que ni c'est les positions de Moustapha Diop ku wala see les positions de Walfadjri man ah, man ragaluma nag <laughs> su ma la bëggee wax dara dama la koy wax. ñi ma xam xam nañ ne. quand j'ai envie de dire quelque chose je le dis mais quand Guy Marius Sagna le dit wax naa ko Issa Tine def naa démb rek le débat s'est posé chez démb rek on en parlait parce que euh, man ça me gêne beaucoup polémique bi am ci diggante moom ak Maïmouna. ah parce que Guy Marius moi je le dis. dafa bokk ci les personnalités publiques ci réew mi yu ma respecté lool yu ko respecté lool Guy Marius Sagna dama ko sopp j'ai de l'estime pour lui pour les combats qu'il en même temps Maïmouna dafa nekk jigéen bu ma sopp ku ma respecté parce que Maïmouna euh, amul luy am Walfadjri muy problème muy lu neex te du jël téléphone woo ma keroog bi ñu ma convoqué dafa ne ma yow moom bu ñu la convoqué ñun ñëpp la ñu convoqué waale bi ma génnee lañ ne ma Maïmouna Ndour dawal na oto ba ci commissariat bi donc j'ai pas aimé du tout ça franchement j'ai pas aimé te su ma ci mënee dara. Hmm. damay woo Guy Marius woo may mënoon ne ko. nee la ñu waxtaan voilà <laughs> mais encore une fois su fekkoon ne dañu toog aram invité ma ci émission am. Hmm. ma am nu ma waxee. loo xam ne mën na engagé aram parce que dañ naan ci émission aram la ko wax su ko neexee mu recadré ma. Hmm. mais sitting Sénégal gépp ñu taxaw Guy Marius Sagna wax ñu ne Moustapha Diop na jëlaat parole ne ko bu boo bu wax loolu ah man de xaw ma teraanga boobu. <laughs> mais est léegi doo du du indi yàq diggante. diggante TFM Walfadjri wala ay euh, reporter fii wala beneen présentateur ñuy waxante par par presse interposée. Mhm. te mu nekk ay organes yoo xamante ne dañu samp seen tànk. Mhm. yàgg ci euh, paysage bi. naka ngeen di gisee loolu. ba mhm. pare di bàyyi muy continuer. est-ce que mhm. yaakaaroon leen tamit mu am ay ay njeexital ci. taw euh, yenn man dama d'accord ak yow c'est de notre responsabilité. te Daouda Mine daf ko wax keroog man dama ci d'accord ak moom. Hmm. Euh, ça me surprend pas lu lui parce que man may ñëw populaire nekk stagiaire Daouda Mine moomu nekk TFM. bokk na ci ñëw fa accueillir. waaw boobu j'étais sama première semaine presse fa ko fekk. je me rappelle d' ailleurs je lui rappelle souvent ça ma ne ko bi nga ñëwee di ma jaay affaire naan ma c' est toi le fameux fekk bu ma fay ñëw dama fekk moom mu nekk envoyé spécial à Louga chez moi mu ñëw fekk ma ci rédaction bi mu ma toog mu mu euh, boot loxo yi ci ginnaaw romb ma ndax xam nga journaliste il faut ñu la affaire quoi <laughs> di la war na ñëw la fi njëkk naa ma c' est toi le fameux Moustapha Diop ma ne ko oui bien moi donc quelqu'un comme ça euh, ak ñeneen yu ne ci yeneen i kër yi taskat maa ngi koy wax démb de de Aïssatou Diop quand je quand je venais Walf yàlla dafa def dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo fa yaatal. donc mën nañ dem ba nga xam ne dañuy am ay divergence parce que notre façon de faire notre métier. Hmm. c'est c'est comme ça métier wu wax il faut mu am divergence. mënoo ci dara mais comme li Aram wax il faut qu'on gère l'essentiel. Mm. que ni amuñu droit di diviser wu gis nga man euh, yii di xew nii. dafa am benn affaire boo xam ne dafa ma metti ba ñi ma xam ñëpp xam nañ ne wax naa leen ko ñu dégg. Hmm. mooy quand on a voulu nous opposer à Assane Gueye de la RFM gis nga loolu li mu ma méttee te li tax mu métti ma c'est pas li ñu wax ñun parce que li ñu wax euh, wax naa ko waxati ko y avait absolument rien de méchant billahi wallahi y avait rien de méchant mais bi ma gisee Binta Diallo def benn émission wax ci mm-hmm. ma gis kilifa woo ma ne ma bul tontu ci loolu naa ma naam dama ne ko j'étais étonné ma ne ko mais qu'est-ce passe mu ne ma yéen li ngeen wax Assane Gueye waru leen ko ko wax nangam ak nangam ma ne ko mais doo ma envoyé ndax ma xam li ma wax parce man xamatuma qu'est-ce qui s'est passé ça ça m'étonne quoi euh, je d'ailleurs j'en pour le remercier ku mel ne Zator Mbaye bu bu Benno Bokk Yaakaar pour vous dire ni man aw ma ay frontières quoi <laughs> Zator lui-même il m'appelle il me dit Moustapha vraiment j'aime pas du passe a wax mais di ma dépasser hmm. loolu lépp métti ma xam li ma métti hmm. mooy j'ai pris mon téléphone man woo Assane Gueye plusieurs fois décroché wu ma ma envoyé ko ay message par WhatsApp ne ko man la Moustapha Diop bu Walfadjri dama bëgg nga woo ba léegi il ne m'a pas ma xam ne. am na lu mu jàpp am na lu mu jàpp. ba nii ba nii man loolu loolu dafa ma dafa metti parce que su ma sañoon man rakkam rek laay doon mu woo ma su fekkee ne dafa jàpp ne on a tort man je m'excuse tout de suite c'est noonu laay def. man toog naa fii euh, gis les jeunes de Pastef la ñu topp Binta jàll di ko yàq lu leen neex mënoon naa toog ne sama yoon nekku ci mais dama def benn chronique ne leen bu leen ñu fontoo moomu leen réew mi Binta Diallo elle fait son travail après Binta elle-même elle prend son téléphone elle m'appelle ne ma vraiment dama la bëggoon rek euh, remercier ndax li nga def noonu mënoon na la cee bañ a fekk affaire yooyu. de la même manière Maymouna Ndour Faye mii elle prend son téléphone elle m'appelle elle me dit Moustapha je voulais te féliciter ndax li nga def loolu la confrère war a def ak conseiller ba pare ne ma nag bu ma sañoon Maymouna de <laughs> Maymouna mu ne bu ma sañoon nag nga def la même chose ak Aïssatou Diop Fall parce que lu nekk nga koy yàq ma <laughs> ngeen koy yàq baax na ni ngeen koy <laughs> jokkalante ne am na solo parce que ñun buñ koy dégg dinañu motiver mais mais ci kaw li ñuy gis mooy ni déggoo amul dañuy seetaanante suñu biir euh, correct mun naa xëy waxle voilà mun nañ xëy jàpp keneen jàppalante bi ci cause jàppalante bi ci oh cause yi. oui mais nag euh, nan la ñuy def xëy na ba loolu. dinaa la dinaa la wax tout de suite lan moo tax loolu boo koy espérer aussi di nga xaar ba mu yàgg. Ah. gis nga en 2004. Hmm. juillet 2004 dañu jàpp ma jambal jaay def ci kaso bi boobu la la convention des jeunes reporters juddu. à l'époque man j'étais le, le secrétaire général chargé de la formation de la convention des jeunes reporters. bi ñuy créer la convention des jeunes reporters le discours introductif à l'assemblée générale man maa ko liir man mii. Hmm. parce que y avait un choix entre man ak Pape Alé Niang moo koy def Pape Alé Niang ma sama rak tu le fais parce que man newuma fi di liiral kenn discours man maa liir maa lire discours boobu. moom daa <laughs> c'était en présence de Aliou Sow mi l'actuel ministre de la culture à l'époque moo nekk ministre de la justice. ak Bakar Dia ministre de la communication ñu ngi ko defoon piscine olympique. ci moment yooyu ci lañ jàpp ma Diagne ministre de la jeunesse waaw Aliou Sow Aliou ci lañ jàpp Madiambal Diagne mais boobu dafa amoon benn solidarité bu extraordinaire bu amoon dans la presse xam nga lu taxoon hmm. ñi nga xam ne ñoo nekkoon à la tête des groupes de presse et des grands journaux de ce pays ñooñu je dis souvent que ils avaient le journaliste dans le journalisme dans le sang da nga doon lim Babacar Touré lim Mamadou Oumar Ndiaye. Mm. lim Laye Bamba Diallo lim Sidi Lamine Niass lim euh, le SYNPICS d'alors ñoom Alpha Sall ñoo fa nekkoon ak mm. yooyu. ñoom Diatou Cissé. la convention des autres partenaires doon soog doon soog a juddu. voilà donc loolu pour ñu solidarité woon jafewul mais léegi. Mm. xoolal Pape Ousmane ce qui se passe les journalistes entre man ak yow on a aucun problème. <laughs> man si je me prends wala fajit tu prends ton téléphone tu m'appelles. mais bien euh, su keneen amee feneen c'est la hmm. mais sauf que man moom wal fajiri yow moomoo. Hmm. Euh, Binta Diallo moomul TFM. keneen moomul feneen keneen moomul feneen donc mën naa la soutenir di la woo téléphone soo wootee sax ma ñëw taxaw mais bis buñ nee nañu fay tele yi. Hmm. parce que ñu bëgg a soutenir waa Walfadjri mais problème day am. Ah. pourquoi parce que bi ñu jàppee ma jàmbal. ñu ne nañuy def dañuy def journée sans presse. Oui. mais boobu day yomb pour journée sans presse am parce que les patron de presse étaient tous dans la cause te le patrons de presse ñoo moom presse bi. Hmm. ñoo moom média yi. mais tey boo nee boo nee nañu def journée sans presse pour soutenir Walfadjri y en a qui le feront. ah ñu ngi koy waajal de. oui mais y a d'autres qui ne le feront pas. ñu seen bopp la noonu non non ah, ah. du ma leen ci mere te du ma ko reprocher journaliste yi. parce que presse Sénégal bi ñu nekk nii actuellement. Mm, mm. mais journalistes yi moomuñu ko. mais les grands groupes de presse même les les, les sites les chaînes YouTube que tu vois là dans ce pays journalistes yi ñu ko. ay employé lañ fa. Mm. employé day yem place employé man lu ma ak lu ma mën représenté Walfadjri moomu ma ko. employé laa fa salaire laa fa am bu weer deewee. su ma fa defee lu leen neexu ñu ne ma fut dehors. <laughs> mais il faut qu'on on ne peut pas demander l'impossible aux journalistes mooy suñu wootee par exemple ne dañuy sitting pour mm. demander la libération de Pape Alé Niang mm. man pour man la maison de la presse dafa war a fees dell dafa war a fees dell suñu wootee dañuy marche comme bi ñu fi defoon pour demander à l'époque la libération de Pape Alé mais mm. ñëpp génn am na sama benn grand journaliste la dafa ñëw ci marche bi après mu woo mu ne Moustapha man am naa lu ma métti quoi ma ne ko lu tax mu ne ma du ñëw je n'ai vu que des doon naa aimé gis les anciens les anciens ñëpp ñëw gis nga dama toog bi ñu euh, defe naa bi ñu jàppee Pape Ndiaye la hmm. quelque ñu def benn sitting le vendredi le lundi ma toog sama bureau rek vigile bi ñëw fëgg ma dama ma benn grand bu lay seet ma jóg taxaw ñëw ci bunt bi gis ko gis muy Mamadou Oumar Ndiaye ça m'a fait tellement plaisir Mamadou Oumar Ndiaye avec tout ce qu'il a fait la presse mu ñëw toog mu ne Moustapha j'ai tenu à me déplacer ñëw ba fii exprimer leen sama solidarité parce que keroog vendredi bi ngeen di sitting mm-hmm. fekkuma Dakar et il m'a dit beaucoup de choses sur notre métier des choses qui me rendent fier mm-hmm. de faire ce que je suis de faire et de continuer à le mais ngi ci prison bi yaa Serigne Saliou Gueye mais mais dafa nga ne Serigne Saliou Gueye war na nekk ci prison ñun journalistes yi ñu toog pensez que seen normal mm. tout ce que Serigne Saliou Gueye a représenté dans dans cette presse là ñu jaar ci loxoom ñëpp defe nga ne heure bi waru woon fekk ñu ne def nañ benn marche ñu ngi préparé benn sitting ña ngay def beneen leneen ña ngay def beneen leneen. bañ ko jàppee ba léegi loo dégg benn communiqué wala ñaar bu pensez que c'est normal même li ñuy wax ci Pape Ndiaye. nga xam ne mm. Pape Ndiaye li xëy na c'est pas une chance parce que dem prison de chance mais au moins il a l'avantage sur Serigne Saliou Gueye d'être dans un groupe de presse boo xam ne chaque jour ñu ngi wax ci Pape Ndiaye di ko tudd mais man ça me fait très ñu naan ma te mii. avant muy dem prison ma toog benn jour yeewu suba taal sama téléphone rek gis xaw ma ay émojis lañ ko tudde xaw ma. ñu def photo def ci ay rangooñ ne sëñ Saliou Gueye décédé na. sama àdduna tukki j'ai failli pleurer et j'ai eu le jël sama téléphone woote ci numéro mu sone mu ne ma allo booy ma ne ko ça va sëñ Saliou mu ne wéy sama ma ne alhamdulilah. <laughs> ma ne ko mu ne ma lan la ma ne ko man kat dama gis tàgg mu ne ma mais man temps yëpp dañu may ñu ngi may tàggee. Pape Ndiaye il lui est arrivé la même chose. mais Pape Ndiaye. toog et Cheikh Diaby aussi. oui Cheikh Diaby Pape Ndiaye mais mais vous pensez vous vous ces choses graves qui se passent dans la presse le gouvernement n'en parle pas te pourtant ce gouvernement là doit protéger les journalistes doit protéger la presse man toog naa sama bureau nit Pierre Edouard Faye woo ma ne ma suñu correspondant ba nekk ci Sédhiou moo ko woo ne ko Pape Ndiaye la ñu tàggee. ma ne ko Pierre loolu mënta nekk Pape Ndiaye mënul décédé ñun ñu ne fii duñ ko yëg Pape Ousmane j'appelle Pape Ndiaye son téléphone sonne dix mil fois il décroche pas mais on a commencé a paniquer à paniquer jusqu'à ce que mu décroché ma ne ko Pape lu xew mu ne ma lan la dama doon nelaw ma ne ko mais Pape yow réew mi ñu ngi lay tàggee. mu ne ma ah bon ma ne ko et ñi koy def xam ne leen moo tax à chaque fois qu'on di dit oui les les gens de Pastef là dañuy critiquer ñii dañuy saaga dañuy affaire may leen waaw loolu de dëgg la parce que dinaa koy gis xaw ma ñoom la xaw ma du ñoom sax mais il faut aussi ñu wax ne de l'autre côté également ñu ngi ñuy saaga di ñu menacer de mort di ñu tàggee le gouvernement n'en parle pas tey si un ministre de la République bu dit hmm. que ni y des dans les quartier les gens se s'organisent pour se protéger oui c'est très grave maanaam ku ne yaa sa bopp te dégg Abdou Karim Fofana. te dégg bu doy waar la la la la perception boobu perception bu doy waar moo ci am. ah oui oui man j'aurais aimé que le ministre Abdou Karim Fofana reprécise sa pensée su ko mënee. parce que ça veut dire simplement que ni tey dans chaque quartier de Dakar ou du Sénégal les gens les jeunes peuvent se regrouper ku mën a yor yet yet ku mën a yor leen yor pour sa pour se protéger dans un état de droit avec une police la police que nous avons la gendarmerie que nous avons qui fait son travail, qui peut protéger les Sénégalais, qui nous dit tout le temps qu'ils ont les moyens d'assurer notre sécurité. On di ça et on fait comme si de rien n'était. tey ñun par pendant les événement là am fi. Hmm. Paos xam nga ni euh, pendant ces événements là. Hmm. man dañ dañ ma tere ma dawal sama oto. parce que je reçois de menaces. comme sabotage. les gens te disent clairement que Moustapha gaaral sa oto bi ngay jël taxi. waaw ah, oto ci mbedd moom man dem naa ba du ma wax lu amul dem naa ba dama wut sama benn xarit ne ko mu ñëw ñuy ànd ñoom ñaar muy dawal parce que bëggatuma woon dawal man kese. Hmm. loolu lépp ñun ñu koy dund noppi. pendant ces événements là yii jàll. te lii taxawawul de. 2024 la ñu jëm contexte bu chargé la ñuy dund finalement. sama xarit boo xam ne man ak moom on est ensemble depuis la classe de sixième moom laa woon ne ko bàyyil sa liggéeyam bàyyi liggéeyam ñëw bu xëyee suba moo mooy gaari sama buntu kër ma yegg ci oto bi mu nekk sama chauffeur <laughs> je le salue au passage su wàccee yóbbu oto bi boo léggéey mu indiwaat ma pourquoi parce que on nous a clairement alerté sur ça te je ne suis pas le seul. ñu on vit ça dans notre propre est-ce que et on n'en parle pas duñu ay sàcc duñu ay bandi. est-ce que sorties yi nga xamante ne yenn ci membre gouvernement bi ñu ngi koy def nekkul aussi di fragiliser la presse. mais mais bien sur bien sûr Aram tey man wax naa ko nee naa le ministre de la communication moo waroon nekk suñu premier partenaire. nekk nekk suñu première oreille. boo xam ne ñun moom mooy day wax ñuy dégg ñuy wax muy dégg. suñu amee njàqare moom moo ci war a taxaw pour nous rassurer mais warul nekk un gendarme contre ñun c'est pas son rôle. tey su fekkee ne dañu présenté Walfadjri comme ni ñu ko présenté au cours de cette conférence de presse là wax ne l'essentiel des gens qui travaillent sur les sites internet ak les chaînes YouTube xaw ma lan jànguñu métier bi xamuñu ko c'est des irresponsables mais ça nous fragilise loolu il faut ñu am courage wax ko Pape Ousmane. même s'il y a une partie de vérité. dans ben, ce mais Pape Ousmane euh, la façon la façon dont euh, on fait notre métier muy yow di aram di man on n'a pas besoin de Ismaël Madior Fall. d'accord wala de Abdou Karim Fofana pour nous l'apprendre. mooy sànq ku ci xamul boo ñu laajee mun nañu wax. mais du ci werante kenn. gis nga parfois da ngay dégg un ministre dafa am benn euh, banquier bu ma wax quoi mu ne ma day dégg un ministre. Hmm. muy wax ci affaire ay genre hypothèque ay terrain affaire yooyu wax a wax expliqué ba sonn moom mu xaxataay quoi jabaram ne ko lan la mu ne mais kii li mu wax mënta nekk de la même manière dégg quelqu'un di wax dans le ci métier wu journaliste di la critiquer et tout mais da ngay da ngay am envie parce que tu te compte que ni li muy wax xam ko. oui xam ko aram naa yaa ngi def temps bi mais duñ bàyyi Moustapha du ñëw ba fii duñ ko laaj. un <laughs> waaw waaw mais. sama question bi loolu dugg nga. <laughs> ah maa ngi parce que Moustapha il faut ma am leen mu duggal. Moustapha ñu dem tabaski <laughs> Moustapha wéeru leen mu dee Moustapha suspension bi xaj. Uh-huh. waaw lu jot a dugg. technique bi ñuy wax. gis nañu élan de solidarité bu am jóge ci ci askan bi. Mm-hmm. même bu fekkee cagnotte bi nga xamante ne nii ñu ngi ko doon jéem a def ak benn euh, plateforme. bu fi mm-hmm. nekk mujj nañ ko dakkal mais gis nañ am na encore yeneen voies de contournement. Mm-hmm. ñaata ngeen am ça ñaata ngeen jot a dajale. alors kees la xaw ma bu ah, ñu teg ca wàllu. mais mais mais mais. ñoom dëcee di jot dëcee faal. gis naa encore ah, ñeneen jot jënd ah, naa un eh, woo leen président dafa dafa am ñaar dafa am ñaari bëgg a wax. man ci njëkk mooy kees bi nekk Walfadjri mais kees woo est-ce que xam ne léegi mu am ñaareet Walfadjri lii tax ko faa toog du tout pas du tout. lii da ñii ñëw Walfadjri gis nañ chaque jour ñu romb fa kees xam nga lu tax. ñu dañu toggam jàgg ñu ne Walfadjri li ko sénégalais yi defal il faut ñu fexe di delloo ci sénégalais yi dara ñu ne dañuy créer benn fondation waqf ñi jàng kii xam nañ ko finance islamique di fexe ñun li ñu am ñu koy def ñeneen di am di def su ko defee ñuy dimbali ay sénégalais hmm. ñu jël kees boobu teg ko foofu ci bunt parce que foofu jumaa la en fait. suufu Walfadjri jumaa la. ñu teg ko fa nit ñi dafa def ay cent franc ay mille franc nangam ak nangam yenn saa yi ñu toog xool ko li ci nekk ñu jël ko jox ko benn jumaa wala benn jàkka noonu la fa mës a nekkee. lii fekk ko fa nag wéyewu def li mu def. Hmm. les sénégalais ne. wut leen kees parce que lii li am solo mooy affaire yi ñun hmm. waxuñu ci dara Sénégal ñoo wax Sénégal ñoo ne wut leen kees teg ko buntu Walfadjri ñu ñëw di ko fa def ñu ne leen am na fa. na fa déjà. yow mii ñëw nga war faji kees googu booy ñëw da nga koy romb ci escalier bi yéeg léegi mu am fa ñaari at beneen bi aram te pour man dafa am solo mooy euh, parfois dama toog waa ma ne Sidi Lamine est-ce que du woon wàlliwu di ko nëbb <laughs> Sidi te boobu bi mu koy wax mm. jour boobu lañ may installé man pour ma jiite la rajo Walf FM man ak maam Anta Ndour ak Betty Mbuub mm. ñu taxaw boo xoolee image foofu la ko waxee mu ne Sidi Lamine du seen patron askanu Sénégal ñooy seen patron yokk ci beneen affaire ne Sidi Lamine fayu leen askanu Sénégal ñoo leen di fay. Mm-hmm. ba pare ne bis bu ngeen wanee askanu Sénégal ginnaaw dinañ leen wan ginnaaw man moo tax ñun bu ñu demee ba am ay jafe-jafe. Mm. ñun ñu naan danañ am xaram danañ am salaire weer bii dee affaire yooyu askanu Sénégal jóg ne man maa leen di fay. dama naan mais gàcce ma ñun kon la ñu Sidi Lamine waxoon ñu ngi ci ba léegi. Mm. buñ jàddoon yoon wi askanu Sénégal am nañ fulla. Ah. waaw dañ leen def. dañoo am fulla du ñu taxaw di dajale seen xaalis di leen ko jox parce que dañuy gëm ne fa ñu Sidy Lamine rëddaloon saa njóogu dafa xol am solo mu ne euh, ku yaakaar ne Moustapha Diop wala Cheikh Niass wala saa njóogu wala keneen moo tax Sénégal indi foofu seen xaalis yaa ngi nax sa bopp il Lamine la baa parce que Sidy Lamine Niass moo tax ndax dafa am ligne bu mu tracé woon ne tant que yéen a ngi ci askan dina leen taxaw ñu nekk ci askan bi ñu taxaw ñuy sant yàlla. fu ngeen ci toll xaymaagu leen comme ni ko Aram di wax. non man ngir dalal xel xel ñu fay liggéey. je <laughs> je dis souvent une chose. je dis man euh, comment Cheikh Niass fait xaalis ci wax. dinaa dinaa wax ci xaalis bu baax <laughs> euh, comment Cheikh Niass fait pour me payer mon à la fin du mois c'est pas mon problème. je lui demande jamais des comptes. jamais moom kay lay toog ba neex ko comme ni mu ko defee keroog. Hmm. ma toog fa ma toog mu woo ne ma Moustapha kees bi dajji nañ ko un million nangam moo ci nekk en une journée wala mu woo ma ne ma diw ñëw na fi nangam la ñu jox wala diw ñëw na fi nangam lay jënd ci journal yooyu euh, kii di euh, aram di wax. Hmm. mais bu dul loolu ku ma xam-xam ne du ma laaj mukk Walfadjri lu fi nekk lu fi nekkul c'est pas mon problème man je suis et je dis souvent que soo gisee ma nekk directeur Walfadjri ba pare di continuer di animer ay émission di participer ci émission yu ma neex c'est parce que je veux rester su ma ko bàyyee nekkatuma Moustapha Diop maintenant hmm. leneen li mooy ñun bi Sidy Lamine jógee deux mille dix huit am na ci dëj bi hmm. ci dëj bi Sidy Lamine bi mu fi jógee ci dëj bi ci bis bi wala hmm. ñaareelu fan bi ñun dégg nañ suñu nopp nit ñëw fa ne ñu yéen fu ngeen di jëlee ci salaire Sidy Lamine dem na say boo ngeen wuti liggéey boobu ba léegi boobu ba léegi Papa Ousmane amul weer wu dee te fay wuñu à temps parfois sax on paye bien avant leneen te loolu njàmbaaru Cheikh ñas rek la xaalis bi ñu bi ñu doon tiit ñun weer wii di tiit hmm. naan yii wóorul wóorul tabaski bi dafa cate te il faut nga fay salaire le vingt affaire yooyu te lii bu ko Macky Sall bàyyee mu tëju <laughs> euh, du ñu am salaire hmm. mais Aram je peux te dire tout de suite que ñun dan on aura nos salaires à dañuy dem tabaski ji nu ñu neexee nit yi Mari Sagna doon waxee sortira grandi awma ci benn doute awma ci benn benn doute. am na ku ma dégg ci gars yi que on sortira encore plus grand de cette histoire. oui loxoy président Macky Sall it leen. waaw ah, loolu dégg naa ko. mais Pape Ousmane c'est intéressant li nga nekk di wax. xam nga dafa am ku ma dégg mu ne waaw am na ku ne euh, président Macky Sall moo doon fay. seeni salaire. fayatu ko moo tax ngeen commencé di ko xas. ma ne kon gàcce ngalaamaa waawal fajiri parce que ñaar rek moo mën am. Hmm. man xaw ma ci dara encore une fois je dis que je demande pas des comptes man du ma comptable du ma auditeur journaliste là je demande pas des comptes sur fu l'argent di jógee vraiment c'est pas mon problème man li ma bëgg mooy bu weer deewee ñu jox ma def sama poche dem jënd lu ma neex tant que loolu mi nga am li sama li sama yoon nekku ci mais Pao San buñ ne laa. Hmm. ñii président Macky Sall moo doon fay seeni salaire léegi fayeetu ko moo tax ñu koy xas hmm. mais yow da nga war a wax gàcce ngalaam waa Walfadjri xam nga lu tax. mooy su fekkee ne loolu dëgg la je dis bien su fekkee ne loolu dëgg la mm. l'objectif c'était quoi c'était quoi non je te pose la question mm. yow su ma dee def sama liggéey sa yoon newu ci nga may fay salaire l'objectif c'est quoi c'est pour ma wax lu la neex waaw dina xalamal way donc ça veut dire que ni wal Walfadjri il refuse di xalamal Macky Sall moo tax mu rocciwaat loxoom su fekkee ni su fekkee ni ñu ko waxee noonu demee ah mais pour man li gënoon a yomb pour ci Walfadjri mooy su fekkee ne président Macky Sall mi ngi leen di fay ay seeni salaire mais ñu xalamal ko jàmm na ñooy. wala déet ngeen ko ah loolu tamit ne leen changé ngeen. ngeen soppeeku ngeen exactement mais comme ñun waa ji nee nañ mi ngi doon fay suñu salaire te taxul ñu soppeeku. Eh. ma ne gàcce ngalam waawul fajiri soppeeku wuñu. Ah, ça veut dire que ni boo leen dee joxe duñ soppeeku. waaw yàlla na président ñaari laaj. yàlla na président ñaari benn bi. benn bi Moustapha du toog ba fii te duñ ko laaj ci situation Ousmane Sonko certainement nga ëppale ñu ci. Euh, ñun ci xamul dara dégg nañ ministre yooyu ministre ñaa ngi cay wax. tey sax mm-hmm. ci conférence de presse bi dégg nga. Mm-hmm. Euh, taskatu xibaar yi fa nekkoon doon laaj. maanaam blocus beeg nan ko fàttee foofu ci lan la tegu. Mm-hmm. Euh, dégg naa Antoine Diome sax di invoquer ñeenti principe. waaye man loolu lënt na sama xel dinaa ko lijjanti après lan nga comprendre ci fiñ ci toll nii Ousmane Sonko daan nañu ko ndax tëj nañ ko ndax tëjuñu ko euh, tey ci di h la. Euh, mhm. appel am waroon dugg bu duggul xëy na leneen. moo ca mhm. moo ca am. Mhm. ci brouhaha boobu yëpp lan nga ci comprendre. finalement ministre de la justice de justice bi. waaw parce que jotaguñ de justice pour xam. waaw hmm. ah. l'intégralité de la ci ay corruption. yow yow kay yow soo soo comprendre nga wax ma yëpp waaw. soo comprendre nga wax ma. ñàkk comprendre kay moo tax <laughs> mais euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans notre pays gis nga Pape Ousmane man euh, journaliste la mais yàlla def na génnatuma je suis plus dans les euh, tâches administratives qu'autre chose. donc li nga xam ne mooy xew parfois suñu reporter di ko gis. Hmm. man mën naa ko bañ a xam. gis nga blocus bii ñuy wax kër Ousmane Sonko. Hmm. yàgg naa ka dégg comme ni ko yëpp di déggee. Hmm. yenn saa yi su may ñibbi su ma génnee Sacré Cœur je passe par la cité kër góor gi dinaa gis auto taxaw mais xaw ma dëgg-dëgg ce qui sa passe parce que man xaw ma xam naa fi Ousmane Sonko dëgg mais xaw ma këram. mais il est arrivé benn chose dimanche bii ñu génn. dama toog di wër gaz. parce que dama dégg ñu ne gaz amul la ma ma wër fii suñu koñ yëpp aw ku ma woo mu ne ma am na koñam ma ne ko bàyyil ma ñëw jënd ko foofu ma déparé ci BDN bi ne bon naa dem ba cité kër góor gi comme ça je euh, ni ñu koy wax sax embouteillage yi am fii yëpp quoi ma dem ba cité kër góor gi ma jàdd dugg mais su ma yëgoon du ma fa dugg hmm? ce ma yëgoon du dugg man dama agsi ci ci barrière bi ma njëkk agsi alkaati yi ne ma naa taxaw ma taxaw ñu ne ma wàccal sa ma wàcc ñu ne ma tijjil oto bi ma tijji ñu ne ma tijjil maal bi ma tijji ñu xool ba leer leen dara newu ci ñu ne ma tëjal man ngaa dem ba pare ne ma foo jëm. Mm-hmm. foo jëm waay may leen bërëb sàngam laa jëm ñu ne bu àggee ci farmasi bee nga jàdd ma ro ma jóge ci ñooñu romb yeneen alkaati yomb yeneen alkaati ba àgg ci pharmacie bi jàdd romb yeneen alkaati romb yeneen alkaati ba génn koñ boobu. mais mais man j'ai parlé démb ak benn notaire maître xaw ma nan laa mu ne ma moom foofu la ay service am nekk mais day tëj parce que kenn mënu fa dugg. Mm-hmm. et ça c'est ouais, ça je te pourtant daanaa dégg ñu koy wax ci ci média yi mais mais xaw ma ko parce que daw ma fa. mais keroog dimanche laa la wax parce que dimanche la circulation est plutôt fluide. dimanche laa la laa fa dem. xëy na su fekkoon ne beneen jour duma jaare noonu mais le dimanche je me disais que ni jarul may jaar ci côté yi ay euh, Liberté 6 ak yooyu day am embouteillage naa contourner dem mais vous pensez que ça seen normal lenn moo mën a am Ousmane Sonko àtte nañ ko teg nañ ko daan dañ ko war a jàpp ñu jàpp ko waa quartier boobu continuer di dund seen dund normal mënuñu koo jàpp ñu xool leneen mais tout un quartier nekk prison. nekk ala noonu la ma ko ndaw si waxee démb d'ailleurs ki ma lay wax ni notaire boobu jigéen la mu ne ma nous tous en prison tout le quartier en prison mais loolu moo tax ma ne la boo comprendre yow nga wax ma parce que man j'ai pas compris xëy na nag li ma jàngul droit la moo tax bu Antoine Diome dee wax yenn yi du ma ko mën a xam parce que moom magistrat la man du ma jànguma droit mais vraiment je comprends pas ci lëj-lëj bi gis nga ci bunt am nañu jàpp buntu dialogue ñeneen jàpp buntu médiation yaa ngi dégg ku ne ñu ñu ngi cay dox Mm-hmm. ñeneen ne nañu xaar président fii ak le vingt cinq. bu ci mm-hmm. génnee xëy na mu wax wax jooju am fu mu ñu yóbbu. oui euh, lii loolu yëpp ci contexte. de lii lii suñu njëriñ ñun Sénégal. Mm. mooy mu neex mu naqari. man duma ne nañu appliquer décision de justice par force ñu war a dee ñu ñu rey leen. loolu ah, moom <laughs> pour man ah pour man wax ju grave a ngoogu. ah pour man wax ju grave a parce que réew mi Sénégal la tudd. am ay jaar-jaar yu bëree bëri ay nit ñu baax ñoo xeex pour def Sénégal li mu nekk réew mii euh, Pa Ousmane hmm. jàpp nañ fi kilifa diine yóbbu ko exil juróom-ñaari at au Gabon mu ne bëggul benn doomu sénégalais ñàkk ci bakkanam Cheikh Ahmad Bamba tudd réew mi Maodo Malick si nekk na fi ak tubaab yi di dund ak ñoom di jàngal nit ñi di tabaxi jumaa te jàppantewul ak zawiya te jàppantewul ak tubaab yi mm-hmm. keneen noon keneen noonu réew moom bu ñu demee ba ñu ni neen nekk ñu ni neen ñu ne pour appliquer une décision de justice même bu quatre vingt pour cent des sénégalais dee dee nañ ko def wax ju garaaw a ngoogu et wax ju jar a corriger la pour man mm. wax ju jar a corriger la parce que parfois j'ai l'impression que ñun xamuñu suñu histoire réew mm. Mamadou Dia est tali en prison mm-hmm. ay nit faatu nañ bi ñuy jàpp Mamadou Dia mais Mamadou Dia n'a jamais voulu que Sénégal takk ñu ñuy àtte Mamadou Dia mm. le procureur général Ousmane Camara la tudd quand on lui a de requérir une pen contre Mamadou Dia daf ne du ko def daf ne du ko ba léegi on n'a pas requis une peine contre oui. Mamadou Dia il a dit que le seul problème de Mamadou Dia c'était qu'il aimait trop le Sénégal ba il est arrivé que Mamadou Dia pensait que ku ko bëggul moom bëggoo Sénégal Senghor jiite na Sénégal Jean Alfred Diallo nekk le chef d'état-major des armées Senghor sant ko ay mbir mu bañ. yamu ca wan ko yoon. bañ Ousmane Camara raconte dans son livre que ni Senghor woo na leen réunion ñu toog mu ne leen. dafa am ay kër ay kër yu ñu war a dindi à la pour def fa benn tali te indemniser nañ ñi fa dëkk ba pare ils refusent de quitter envoyé là-bas la gendarmerie ñu yëkkati leen Jean Alfred Diallo chef d'état-major des général des armées donc chef gendarmerie ne ko monsieur le président on ne le fera pas parce que la gendarmerie loolu tax ko jóg mu demande ko Ousmane Camara le directeur de la sécurité nationale xaw ma defe naa noonu la ñu ko tuddoon à l'époque Ousmane Camara parce que le de la police c'est de maintenir l'ordre et non de s'attaquer aux populations Senghor maire Ousmane Camara a quitté la Réunion dans les conditions que l'on boo demee ci livre am les mémoires d'un juge africain mi ngi ko ci raconté mm. qu'est-ce qui s'est passé booru 19 heures d'après li Ousmane Camara raconté mm. Abdou Diouf qui est le chef de cabinet du président Senghor est allé voir moom euh, Ousmane Camara ne ko le président Senghor nee wax nga dëgg nañ négocier ak waa Médina ñu dem négocier réew moomu Pape Ousmane. buñ fa demee àtte fa nit. àtte fa nit rek. Mm, mm. ñu ne pour appliquer la loi bu amee ñu war a faatu nañ faatu je dis que c'est très grave. xamuñu fi ñu jógee. non on a beaucoup d'intellectuels dans ce pays ils sont brillants. Mm. mais j'ai l'impression que ils ne connaissent pas euh, l'histoire du Sénégal maintenant dans mm. affaire la lenn moo moo ma ci rassuré. mooy ba léegi je me dis que le président Macky Sall a la solution il a la solution. gis nga gis nga ab Diouf Abdou Diouf Ablaye Wade mais antagonisme yi gënoon na métti lii Abdou Diouf bi ñu reyee maître Babacar Seye c'est un c'est un magistrat. juge constitutionnel vice-président du conseil constitutionnel ñu faat ko dans les conditions que l'on sait Abdou Diouf a géré ça il sama benn grand raconté na ma ne ma Famara Ibrahima Sagna mii hmm. mii hmm. moo dem ci Abdou Diouf ne ko yow ak Ablaye wadd vous ne pouvez continuer comme ça da ngeen di taal réew mi il faut ngeen waxtaan il faut ngeen dialogue Abdou juuf ne ko man awma problème pour dialogue ak Wade mais Wade xam naa ko du ñëw sama pale te man du ma dem këram comment faire mu ne ko laisse-moi gérer Pa Amadou Ibrahima Sagna a ba Abdou Diouf ak Wade waxtaan Wade dugg ci gouvernement Sénégal continué dox tey Sénégal tous ces hommes de valeur qu'on a tey amul organisation onusienne booy dem doo fekk sénégalais. oui mais kilifa yi ngay wax ñu ngi daw. kilifa yi kilifa yi ci réew mi xam nga. ñëpp ñi fi ñi fi ñi fi nekk ñëpp su fekkee ne ñun su fekkee ne ñun on n'est pas capable kenn ci ñun génn nañu dans cette situation la c'est qu'il problème. heureusement heureusement je crois franchement je le crois vraiment je je je veux continuer à président Macky Sall n'écoutera pas certaines personnes. d'accord je ah, crois <laughs> xanaa beneen mooy signal bi moom bu ñëwee da ngeen di am lu ngeen di soppi wala Walf mu doonoon lay doon ba léegi. ah man du ma soppeeku. Oh, <laughs> xam nga xam nga lu tax mm. bi ñu bi ñu tëjee en mars. après jàpp Pape Ndiaye après convoqué Moustapha Diop euh, man sama bopp euh, dafa am yu yu yu bëree bëri ay événements yi fi jaar hmm. bu ñu waxee dañ koy direct mën ne leen non ba ci biir Walf les gens disaient que ni Moustapha nag li ñu ko fi convoqué li ñu ko fi convoqué moo tax mu ragal léegi lu ñu wax mu ne non mais mais pourquoi parce que je me simplement que ni dafa am ay euh, échéances yu ñu jëm yoo xam ne Walfadjri doit être là pour le Sénégalais on n'a pas besoin de fermer Walfadjri euh, ñu bañ fee nekk bu ñu àggee ci échéance yooyu ah. mais après bi ñu tëjee bii pas ma liir ñu ne un mois la ñu tëj mm. dama toog mu jàgg ma ne man tout ce que j'ai fait pour éviter ça finalement ça sert à quoi donc mieux vaut ñu nekk li ñu nekk rek lu ñu ci fekk ñu xam ne moo ñu ci fekk <laughs> merci beaucoup <laughs> euh, Moustapha euh, kontaan nañu si ah, waxtaan bi jërëjëf ci ponk yi nga xamante ne lii baax sax naa su ma génnee bu ma équipe bi naree dóor ak yow la parce que gën invité journaliste moo jafe. bu mu ngi naan des na leen une heure. Ah. <laughs> non moom comme ne Moustapha toujours di wax day bëgg. exactement kay intéressé <laughs> alors ñu ngi lay jaajëfal. bu baax a baax jërëjëf Aram jërëjëf. ah dina ñëwaat euh, semaine prochaine incha ak beneen gën. Euh, jaa ngeen jëf merci également Pape Ousmane Cissé di remercier équipe technique bi euh, bonne li ñuy wax yëpp Cheikh Niass Cheikh Niass nga may wax.